والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين يا رب لسرح في دوام صدري صرحا به أكون مثل بدري ربي صرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول حقدة من لساني يفقه خولي مباكي جلدي مباكي طالبي مباكي تلسفكتاتور روتوبا تيفي نونجلين دنيو دلين زيار دينيانا السرين توبا سيام محمد المنتخى سنبورم ياغل كفلول تموير di ziyaare njabootug Serigne Touba gépp di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi teew teewlu programme Touba TV saa su nekk di am mbégte bu baax a baax eh, di nuyu jëwriñ Alaaji yu Fay mi nga xam ne nii mooy jëwriñu Serigne Touba ci Ndakaaru ak li ko wër di président directeur général télévision Touba TV waaye nag di nuyu bu baax a baax Serigne Cheikh Balla Samb coordinateur général Touba TV. toftal ci Serigne Jibril Ndaw mu yor lépp lu jëm ci programme Touba TV ak Serigne Mbacke Mbodj muy doxal lépp lu jëm ci wàllu production bi niñ ko Touba TV baaxoo di amal saa su nekkee nag ci plateau spécial yi nga xam ne ni télé bi dana leen koy indil ci ay émission yu baree baree bari waaye nag saa su bis bu mag dëgmalee kenn ci njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasul gi ñu def ak plateau ngir fàttaliku ak dundam waaye nag ngir waxtaane ay jaar-jaaram ngir waajale ko bis boobu ma fegook euh, sama xarit euh, sama lépp tubaarkàlla sëriñ maam Cheikh Anta Samb euh, di bokk ci jàmbaar yi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yi ci télévision Touba TV nu bokk liggéey bi baarakallah ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko jox waayam ñu ànd li nga xam ne ni mooy liggéey bi di wax ne tey ji nag suñu plateau spécial dafa jëm ci jënn jëmm joo xam ni saa su nekk xel yi dañuy dem ci moom buñ ko tuddee rek xel yëpp dem ci xam-xam xel yëpp dem ci ya wasare yaatal liggéeyu Serigne Touba Xaadimu Rasul ci gox yëpp muy Cheikh Mouhamed Lamine Baara ibnu Xaadimu Rasul mi nga xam ne ni dana ñëw léegi ci ak yaatal ci xamle ko waaye nag ci kem li nga xam ne ni moom lañu fi dajale ci ay boromi xam-xam ñu nuyu bu baax baax nag xalifa ki nga xam ni moo fi toog tey toogaayu Cheikh Mouhamed Lamine Baara muy Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Sidil Mokhtar ñu di ñaanal bu baax baax moom. suñu borom wéral ko kàttanal ko dooleel ko mbalim na ma liggéeyal Cheikh Amadou Lamine baar lépp mu defee ko ni mu ko soobee di nuyu nag njabootu Serigne Bara gépp nga xam ne ñu ci ginnaawam eh, di jàpp ci li nga xam mooy liggéey bi waaye nag di ñaanal waajuram ba Cheikh Sidil Mokhtar suñu borom dolli ay leeram eh, te taas nu ci barkeem nu am ci plateau bi nag ay kilifa xam naa maam Cheikh Anta dina ci ñëw ci lu gën a yaatu waaye buñ ci dippee rek kenn koo xam ne mu ngi fekk ñi ngi feggoog moom ci sunu loxol càmmoñ ci xam-xamam bu rafet ci yaram ci liggey bi nga xamne ne nako Cheikh Sidil mukhtar muy Serigne Khadim mbake mum Cheikh Sidil mukhtar mu féetanu la xol chamoy ñu diko ko bax bax muy kilifa ak jotaay bi ndax taxawayam ak teewayam ci keur Cheikh Sidil Mokhtar yaakaar ni umputul ken rawati na ci daayira yi nga xamne ni ak mbolo yi nga xamne Cheikh Sidil Mokhtar daana ko ci yebal tay nak mu ñëw fi ngir wajal bés bi nga xamne ni moy magaluk mbake kadior mi ngi fekkook sëriñ maam Cheikh Mbacke moom sëriñ Xaadim Awo mi nga xam ne euh, danaay wax sax ni dafa bokk ci consultant wu Touba TV ndax day jàpp bu baax a baax ci liggéey bi di président association yes kon maam Cheikh dama lay bàyyi nga nuyoo leenu dañoo mënta nuyoo rek te nuyu njabootu sëriñ tubaab bi nga xam ne ñooy kilifay jataay bi euh, su ma la bàyyi di nga nu présenté borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jataay bi ñu xàmmee seen xar kanam waaye ñu rafetlu seen xam-xam euh, ndax liggéey bi nga xam def nañ ko ci yoonu murit yaatu tay kon maam Cheikh yaakaar naa ne ki nu sóobu diko waxtane ci xam-xam lañuy tambalé ci xam-xam lañuy jéxalé ndax hayatuhu wa a'maluhu kep dako yamale won ci xam-xam ak liggéeyal l'islam ak liggéeyal serigne touba maam Cheikh assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah serigne amadou Diop mbokk yi ñu ngi ziyaare ñëpp di sant borom subhanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd bi di sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di fedd li suñu mboolute ak suñu yaakaar. الشيخ احمد بن محمد الرسول دي وحني اللهم صل على مفتاح دار السلام كناو نيو بو سل بوبو سيرنيام نيغا واخ رك تاي لا نيي واختاني كاغا خامني دك بان كوي فاتليكو فا لا يونو مودي سوسو موي شيخ محمد اللامين بارا دي لا 15 ان شاء الله تي مباكي كادور مو وارال تاي بلاتو بي نيكو توبا تي في دي ديفي ات مو نيك سونو جوبي ولا وقتو نيك سونو جوبي بيس ملني Euh, ñu def ci waxtaan wu yaatu wu nit ñi mën a jàngatee ki nga xam ni moo waral moo sabab jotaay ba waaye sëñ am jamono ji ku ni dangay waxtaan ci Mbàkke Kajoor xel yi dina dem ci jàmbaari lislaam ji fi ji jóge bu yàggul muy Seex Sidi Muxtaar yàlla ñu ko yàlla fayal borom juróom-ñaari soror yi borom milliards yi ci néegu bi yàlla te fa mu daan fanaan matul million kooku yàlla yàlla yokk ay leeram jëfal na sëñ Tubaa jëfal na lislaam jëfal na sëñ Baara Euh, yaakaar naa ni tey jii nag li ko yàlla fayee mooy taawam bu baax bi mooy borom ñaari xilaafa yi mhm. di sëriñ Moustapha mi toog toogaayu Cheikh Sidil Muxtaar mhm. waaye mi toog toogaayu Cheikh Mouhamadul Lamine ànd ak rakkam yépp yàlla na yàlla guddal te wéral kon ci ndigalam ak rakkam yi muy liggéey loolu lépp mhm. lañ fi yebale tey ci sëriñ xaadim ni nga ko waxee di suñu xarit di suñu wëllëre di boroom xam-xam di ku am ngërëmal juróom ndax ñépp xam nañ ni ba bi waajuram di nelaw ci mission bu mu ko yónni la ko fekk kon loolu doy na ndax ridan laahi fii ridan walidahi nit ki mun ta am yàlla fekk amul gërëmal ñaari waajuram ak maam Cheikh mi nga xam ni sëriñ Cheikh ñu tudde ko Cheikh Ahmad Kabir Mbay di doomi sëriñ Xaadim Awa ba caatum Cheikh Mouhamadul Lamine nga xam ku ñëw Kébémer gis ab liggéeyam foofu moom tam waaye nag mu dégg maamam Serigne Touba ni bul noonu képp ku naan laa ilaha illallah mu woote waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu Euh, ñu jóge Tiwaawan na Njaasaan ak kenn ba ñëpp ànd ak moom muy jaamia islamiya li xidmati tasawuf mhm. muy jaamia bu mag boobu mhm. sëñ Alaaji Fall di coordonnateur u daayira baare yi nekk fii yépp mhm. ci Dakar di jàmbaar moom itam di rakk ci ma Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla xare àjjana euh, di ziare nag euh, professeur Ibrahima fay di jàngalekat di borom xam-xam ñépp xam ko ci liggéey bi mu liggéey ci Serigne Touba rawatina nag ci àddina sépp di di di di kenn bok ci njabootu Serigne Saliou Touré waye nak di kenn ci yoonu mourid momi tam ak ki nga xamni ni euh Touba TV des koy ndamoo waye yoon wi des koy ndamoo mm. muy borom xam-xam bo xamni su waxe ñu xamni serigne Touba kat euh, am na borom xam-xam yo xamni xam nañ bu wér nono moy xam-xam mm. muy Serigne Abdoulaye Diop Bichiri mum Serigne Amsatou Mbàckeem Serigne Souhaïbou jalibatul Maraqib ak sëtub Cheikh Sidil mukhtar bi nga xamni mom mm. la wa mamam je dëlun fi ci aslam te mu nekkal ko fi te kenn mosu ko dégg ci lu koy maamam tere muy sëriñ Habibou Diop maamam defar maamam ndax sëriñ Touba maamam moo defar sëriñ ñaan Diop maamam waaye sëriñ Baara maamam nag moo féetewoo sëriñ ñaan Diop maamam tey waajuram mooy xalifa sëriñ ñaan sëriñ Moustapha Diop ñu ngi koy ziare baax ak soxna May moom Cheikh Sidil Mokhtar euh, sëriñ Amidoune yaakaar naa ni euh, ñooñ ñoo bokk ngeen jotaay bi ak mbooleem daayira yi nga xam ni ñoo aju tey ci euh, mbooleem kër Cheikh Mouhamadou Lamine kër gu nekk rek am na tey yaakaar naa sëñ Alaaji dina ñëw ci ni mu ko nosee képp koo xam ne rek yaa ngi ci dëkk bi di bégge tey wala bokk ci sa bunt di Cheikh Mouhamadou Lamine sëñ Alaaji yaakaar naa ni coordonné leen ba ñoom ñëpp njaboot gi yëpp ñëw nañ xalaat di jaare euh, sëñ Mun Njaay Baara noonu nga ko waxee. Mhm. ak Serigne Modou Mamoun Lo Gaydel mhm. di mbokk ci Serigne Baara. Mhm. waaye di taalibeb Serigne Xaadim loo Gaydel mi nga xam ni ku ne xamoon na digganteem ak Cheikh Sidil Mokhtar. Serigne Amin di jaare bu baax Alaaji Mbàkke yu fay jëwriñu Serigne Touba Cheikh Mountakha. mi nga xam ni moom moom tey jii tele bi ci ndigalam la nasoo. ndax fii barabu Sëñ Touba la. te ku fi nekkal Sëñ Touba yaa moom barab bi. mun Mountakha mi nga xam ne tey télé bi ci moomeelam la ne. ngi ñaan Porokhane ga mu nekk. Euh, yàlla na ko fa ñëpp fekk ci jàmm delluwaat ci jàmm ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko te li mu naal àggaleel Cheikh Sidi Muxtaar yéene ko liggéeyal Sëñ Tuubaa mu defe ko ni mu ko soobee mm-hmm. ak jëwriñam Cheikh Sidi moom Cheikh Abdoulaye Lahat di ñaanal booleem njaboot gi yépp sëriñ am di la delloo kàddu gi ñu dugg ci nag ki nga xam ni mm-hmm. suñ ko waxtaanee ñëpp xam ni euh, yaakaar naa ni gane àddina wàcc ay nit ci kër Sëñ Tuubaa Serigne Bar rek la ko yàlla mhm. Serigne Serigne sëriñ Amidou Diop. jërëjëf euh, Mam Cheikh Anta Samb ci présentation bu am solo bi euh, ni ngi ko waxee rek ñu toftal ci sunu xarit nga xam mom euh, bi fi bi fa yàgg top programme Touba TV. ci ci liggéey bi muy Serigne Abibou Diop nga xam lay jël téléphone am di woote di wax. ak di di di duggal dugal ci liggéey bi tubaarkàlla ñu diko jox wacc wayam diko ziar ziyaar baax a baax baax ñu ngi feggoog suñu xarit suñu jëwriñ di am mbekté ci mom lool muy Serigne Abdoulaye Diop Bichri Eh, baarakallah ñu koy jox wàcc waayam raay ma fay xam nga ni liggéey na Touba TV liggéey bu am solo liggéey boo xam ne ni liggéey jur ne fi mu émission bu mag boobu di xidma ni nga ko waxee la sëñ Alaaji faal mi nga xam ne fu mu solee dàllam dem rek ci njabootu Cheikh Ndoline Baara ci la nekk eh, di ci dox doon liggéey bu am solo waaye ñu ngi si ziar sunu ñaari wëllëri yi nga xam ne ñoo bokk waar wi muy sëriñ Mouhamadul Mamoun Lo eh, moom sëriñ Xaadim Lo Gaydel ni nga ko waxee di koo xam ne nii moom liggéeyam lépp mooy liggéeyal sëriñ tubaa Xaadim Rasul Euh, ñu ngi koy jox wàccuwaay bu baax a baax di ko jox mu nuyoo ak sëñ di Ndiaye Baara mi nga xam ne moom it bañ na ko ba tur wi rek dàkkantal gi wane na ni euh, léppam kër Cheikh Mouhamadou Baara la ci kanam tuuti danañ dégg seen i kàddu balaa boobu maam Cheikh na benn portrait boo xam ni moo ñuy digtal dëkk bii nga xam ne ni moom la ñuy waajal euh, bis ba di màggaluk Mbàkke Kajoor soxna Ndey Jaay madame Badiane sëñ Babacar Diop ca régie ba bu fekkee ne jàppandi nañu àndandoo ci vidéo bi bokk ko teewlu dellusiwaat ci plateau bi dugg ak suñuy gan nag ci li nga xam ne ni mooy waxtaan bi ñu màggal ma tàmbaleeti tabax lefeeti min rabbi yaasa ilmal lawhi wal xalami إن الرسول لسيف يصدى صدى به من ربه هذا هلم اللوه والخلم بسم الإله الذي القرآن قد نزل من ابتدائي وأرجو هنده النزل Mbàkke Kajoor dëkk bu sell benn ci dëkk yu gën a fees ci histoire ci yoonu murit dëkk bi ñi mag ci yoonu murit joxe seen bopp dëkk bu am taarix ci Baay Faal yi ndax fa la maam Cheikh Ibrahima Fall gisee ak sëriñ Touba ñaar fukki fan ci weeru koor dëkkub aj ak ziar ci mboolem murit yi ndax fala yoonu murit soso ci atum 1883 gannaaw ba maam Mor Anta Sali waajuru Serigne Touba làqoo ay téeméeri ci ginnaaw kajoor nekkoon suufa xëccoo diggante buur yi ak ceddo yi ak sëriñ si xam le feeti njariñu màggal ku jug di màggal di yàlla màggal des na la màggal jërëjëf euh, Warési euh, jërëjëf euh, sëñ Jibril Ndaw ci documentaire bu am solo boobu Cheikh mu leen Baara sëñ maam Cheikh bindikat yëpp ñu ngi wax ne mi ngi gane àddina ci atum 1891 ci dëkk bu sell bii di Touba ci weer wii di Jumaadal Oula mu nekkoon jëmm joo xam ni noo seulement ni mu bokkee woon ci njabootu Serigne Touba Xaadim Rasul noonu la ab liggéeyam taaroo woon ci kër Serigne Touba bi nga xamee ni gane na àddina ci diggante ñaari waajuram yu sell yooyu di soxna Aminata Lo ndax gane àddinaam yàggul waajuram wu jigéen bàyyi ko fi terewul soxna aw Bousso yor ki nga xam ne ni mooy Cheikh Maloune Bara bi mu waree jàng alxuraan jaar na ci Serigne Ndaam Abdourahmane Lo jaar na ci sëriñ Maxtaar sëriñ Maxtaar Demba. kokki jaar na itam ci maam Thierno Birahim jaar na itam ci Serigne Ibra Bint Silla jaar na itam ci Serigne Mbay Jaxate mu nekk koo xam ne ginnaaw bi mu géejoo ci xeeti téere xam-xam yépp li mu bind ci ay téere te wesaare ko ci àddina ñu mën koo jariñoo kenn xamut nu mu toll ci àddina te lépp rek tegu ci xam-xam gis nga bayit yu neex yooyu nga xam ne ni woyoon na ko Touba woy ko waay juróom wa Cheikh Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci foofu la ñuy sofee sax suñu waxtaan xam naa ne historiens yi danañ ci ñëw léegi muy sëriñ Ibrahima ak sëriñ Abdoulaye Diop Bichri sëriñ Xaadim ci yow la ñu ubbee kàddu gi jëmm ji ñuy waxtaane tey dafay mel ni baatin bi sax dem na ba suul zahir si te zahir si bu ñu ko exploité dañuy xam ni dundam gépp njariñ la ndax boo xoolee boo déggee ñu ne la sëñ baara sax boo ko xamul bu baax soo fit day tiit ndax da jàpp ne ko yoroon baatinam la rek bu ne nangam rek mu am fekk nonu ñu waxe ci kaw lewet gi ci biir mo ëppoon doole loolu fuuf kan moy Cheikh Mouhamadou Bara ak lan nga ñu ubbee ci jotaay bi bala ñu ñëw ci borom xam-xam yi nga xam ne ni ñoom la ñu seexal bi. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلماء آمن رسول وخلفاء عليه الصلاة والسلام وارتداهم لشهادة التوحيد الملائكة الأرض والسماء وقرهم بالنفي الأصوح مع قيره بقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنا بن سنت يا الله سبحانه وتعالى دجلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سنت شيخنا شيخ أحمد بامبا خادم رسول Euh, di ñaan sunu borom tabaraka wa ki nga xam ni moo fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mountakha sunu borom guddal aw fanam ba li mu yéene liggéeyal Cheikh Ahmadou sunu borom àggale ko ci jàmm ak salaam euh, di ñaanal sunu sëriñ ba di Cheikh Sidi Muxtaar sunu borom yokk ay leeram ca barsàqul Muhammadiya euh, di nuyu mbokk mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yépp di ñëw ci ndigal ndigal loo xam ni mi ngi duggee ci sunu kilifa di sëriñ Moustapha mu Cheikh Sidil Mokhtar mu yebal ñu fi ñu ànd ak kilifa yu tedd yi kilifa yu baax yi comme ni ko limay léegi jëru ñu ciy jaaraat nuy waxtaane nag euh, jëmm joo xam ni jëmm ju tedd la jëmm joo xam ni ku neex a waxtaane waaye ku naqaree waxtaane la euh, ñu indi woon ci moom ab euh, tënk rek ci ak dundam moom Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké euh, ci ak dundam moom Serigne Mamadou waajuram wu góor mooy Cheikhul Khadim waajuram wu jigéen mooy Soxna Aminata Lo mi ngi feeñ jamono moom Cheikh Mamadou Lamine mille huit mille huit cent quatre-vingt-onze ci Touba bi mu matee jàng alquran waajuram Cheikhul Khadim moo ko dalal gannaaw ba mu mu jox ko Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Touba moo njëkk a dalal Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké alquran ginnaaw bi mu jox ko Serigne Dame Abdourahmane ginnaaw bi tamit mu jox ko maam Thierno Birahim moo ko yeggaleel ba mu jàng ba ba mu mokkal gannaaw ba maam Thierno Ibrahim bi mu ko jàngalee alquran ba mu mokkal mu mu jàng ci. boroom daarul moxti maam Cerno Ibrahim xam-xam bi sëriñ bi demee ci géej gi ba dellusi ci atum 1902 ba dem gànnaar ba ñëw ceyeen jolof e, ci la ko ci la ko woolu jox ko ndigal mu dem sànnoosi moom Cheikh Mamadou Lamine Bara sëriñ Touba moo ko woolu mu dem sànnoosi gannaaw bi sëriñ bi ñëwee njaareem wooluwaat ko mm, binduloo ko fa ab kaamil ci njaareem mu bind ko ci diir bu gàtt ba mu bindee ba noppi mu jox ko ndigal mu dem Mbàkke Kajoor nekk fa nekk fa di jàngale di jàngal taalibe yi ak di leen tarbiya euh, Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke mm, nekkoon ku amuk ubbiku ci réew mi sanc na ay dëkk yu bari bokk na ci dëkk bu ñuy wax Taysiir ak Mbàkke Baari ak xabbaan ak guy mbind ak Mbakke Kajoor ak yeneen dëkk yu bëree bëri Cheikh Mamadou Lamine tamit nekkoon nag boroom xam-xam bu mag xam-xam xam-xam boo xam ni euh, lu ci ëpp sunu boroom mi nga xam ni mooy xam xamle moo ko xamal waaye teewut dafa jaar fa nga xamante ni fa la baaxoo jaar fa lañ baaxoo jaarale kuy jàng jaar na fa تيد متالف أي تيري يباري بكونا تي مناور بنيان سهادة الأبرار سفينة الأمان سهب الإبريس رمت بأهل البدر أكسر المصون يويو سيح محمود لمين موكو تالف بودي ميتي السحب الإبريس تمجي قصيدة تالف نفا جمي بابام بارم باكي دفكو أخاسي ده waaw euh, kon kooku euh, te lool lépp xasida yi ngeen xam ni moom moom la taalif lépp la ci kañ sunu borom di ko ci ñaan ay ndimbal ci te ndimbal loolu mi ngi dem ci mbindeef yi ci wàllu balaa yoo xam ni dafa waroon a wàcc mu ni loolu sunu borom yan ma ko te nga euh, xettali mbindeef yi boo xoolee ay mbindam lépp loolu la ci ñaan kon kooku mu nekk koo xam ni Euh, ku jubóog boroomam la te fonkoon lool njabootuk sëriñ bi ak taalibe yi bi waajuram seexul xaddim ñibbee Touba ci xatum 1927 euh, dafa jël léppam jébbal ko seex seex Mouhamadou nekk ak moom ci nekkin rafet ak mboolem njabootuk sëriñ bi ba nim fa bàyyi ko ci xatum 1936 ca Mbacke Kajoor xam nga Serigne Bara Mbacke Kajoor la wàcce liggéey bi mu wàccee liggéey ca Mbacke Kajoor Cheikh Mouhamadou Moustapha yabal Serigne Habibou Mbacke imam mu dem mu dem ak Cheikh Mouhamadou Bassir di waajur Cheikh Mountakha kon ngeen xam ni diggante boobu euh, diggante bu yàgg la Serigne ak Cheikh Mouhamadul Amin Bara Mbacke ñu nekkoon ay xarit lool loola nag. Euh, dafa dem ba feeñ ci diggante moom mook Serigne Sidi Mokhtar kon loolu diggante bu yàgg la euh, bi bi ko Cheikh Amadou Moustapha yebalee mook si mook euh, Serigne Abibou ñu ànd dem ñu jox ndigal sëriñ Mbacke Bousso jàmbaar ju tedd jooju moom moo jullee Cheikh Mamadou Lamine moo ko taxawu ci barab yu mag ya kon nag dañuy ñaan suñu borom yàlla fayal na ko te taas ci barkeem kon sew Mamadou Lamine euh, jàmbaar la joo xam ni euh, ku neex waxtaane la waaye tamit ku naqaree waxtaane la ndax li mu naqaree waxtaane mooy euh, koo xam ni sa lépp baatin la waaye baatin bi lépp da koo teg ci xam-xam teg ko ci diini na sëriñ bi doxee daan doxe muy doxe noonu te mu am daraja ju kawe daraja jooju nag waajuram soxna Aminata Lo ko ko may ndax ba nu toogee moom euh, soxna Aminata Lo ak soxna Xawa Boso ak Seexul Xaddim ba kaddu sunu borom nga jibee ni tey jii de am na euh, ruugoo xam ne soxla naa ko te ruug si Ahmadou Bamba doon kon foofu li ma fi jubloo wax mooy képp koo xamante ni si yaa ngi ci kër di diglu sa ndigalil kilifa loolu war na nekk loo xam ni euh, looy roy la ndax ñaar ñooñu kenn ku nekk dafa yàkkamti woon dem gi waaw soxna Awa Bousso moom moo njëkk ni sëriñ bi bàyyil ma dem soxna Aminatoon ni ko bàyyil ma dem ndax am nga loo war a defal jaam ñi am na loo xettali lu ko war a xettali jaam ñi te yow rek yaa ko man bàyyil ma dem kon jaayante ko gi mu jaayantoon ci diggante wu Serigne Touba jaayante ko diggante wu suñu borom loolee la ko yàlla fay ci Cheikh Mouhamadou mustafa ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké kon loolu euh, doy na sëkk am njàngat moo xamante ni mën nañ cee jàng ba àddina tukki kon loolu euh, buñ ci jàngatee euh, danañ xam ni dara lu yomb amul ci àddina lépp loo gis jihaad ki nga xam ne dafa jihaad dafa jël bakkanam joxe ko nag kookee maanaam du yem ak kenn kon bu ñu jubee ab bisam di Cheikh Mahamadul Amin Baara Mbakke ñuy ñaan képp koo xamee ne si teew nga fa sunu borom la say bakkaar ndax moom ñaan na lépp ah, kon kon loolu foofu nañu yamani ba ci kanam jërëjëf euh, Serigne Khadim Mbakke ci kàddu gu am solo googu ku dégg sa biir waxtaan nga def tënk bu am solo ci Cheikh Mouhamadou Lamine Touba 1891 ci loola nga xam ni siiw na ci la sëriñ bi waxoon li ngeen doon wut gan gi ñëw biig indaal leen na leen ko muy ngërëmal yàlla kon ki nga xamee ni moo gane àddina ganewaale nga inda indaale ay ngërëmal yàlla kooku mooy Cheikh Mouhamadou Lamine waaye li nga euh, tënkee mbindam xam naa ni euh, li ñuy wax ni ku wax danga feeñ waaye sëriñ Baara doo jànge mbindam rek ca ngay xamee ni sëriñ Baara ku la ku daan yërëm nit ñi la exemple la boo xamee ni yaakaar naa ni euh, al amine jooju nga xam ni moo noonu moo nekkoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ku ñu wóolu sëriñ Baara ku réew mi wóolu woon la ci seen bopp ba fu ne lañ ko daan dénk seen bopp waaye nag sëriñ am xarwa mhm. li mu wax léegi gis nga nit sëñ Tuubaa dafa fekk dafa fekk ay nit baax ci réew mi mhm. waaye mu ñëw nag di coobare suñu borom di kéemtaanu yàlla sëñ sëñ Tuubaa nag bi mu ñëwee baax da ko fekk kër maam yi sëñ Baara mhm. diggante ndaam ak kokki Euh, fekkoon sëñ bi fekkoon na leen nag ñu baax ndax lu ñu doon def mooy jàng alquran te di ko jàngale nekk ci alquran te di ko àttewoo ci alquran kenn mosu leen a yilif kenn mosu leen a moom sëriñ tubaa nag doy na sëkk ab juddu moom ndax ku bokk ci sëñ tubaa aw tàgg doy na sëkk sëñ tubaa sëñ tubaa yi sama wajur waaye sëriñ baara nag li yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni na ngeen jokk seen bokk da ngeen ko bëggee xam sëñ baara bokkam yi nga xamee ne ñoo dëkk ndaam ñii dëkk kokki sëñ am ñoo ñoo njëkk nangul sëriñ baara xam nga sëñ ñoom re tafsar sëñ ñoom re tafsir maxtaar binta mu mag ma mi nga xam ne moo jur soxna Aminata kooku dafa nekkoon nitu yàlla bu mag mooy way jur soxna Aminata Lo kooku euh, madun mbay dooj moo ko jur madun bay dóoj moomu nag matar naar mi nga xam ne mooy waajuram moo sanc ñoom rek doo déggee ñoom rek Matar Naar mi wajuru euh, euh, euh, Modou Mbaye Dodj mi mi mi nga xam ni mooy maam yi sëñ Baara kooku moo sanc ñoom rek kon doo jëlee sëñ sëñ ñoom rek tafsar tafsir Matar Binta mi nga xam ni mooy wajuru soxna Aminata Lo bokkut ak sëñ Matar Binta moom Serigne Touba mi ndax kooku Modou Mbaye Dodj mi nga xam ni mooy mooy baayam moo jur bàyyub sëñ Matar Binta mii nga xam ni. mooy wa mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy maami Serigne Modou Sëñ Abdou Khadir mi àndoon ak Serigne Touba. ñooñu nag euh, euh, Matar Naar mi nga xamee ne nag mooy maam yi sëñ Baara kooku moo sanc ñoom rek euh, Serigne Louga mi nga xamee ni kiñ naan kañ daan wax Baraan Awa mi nga xam ne mooy doomi Omarum Ndaam dégg nga Omarum Ndaam ak Mataarum Ndaam ñooñu ñooy maam yi mbooleem ku sant ñooñu seen yaay shérif la kon Baara lu jiitu sëñ ba sëriñ bi amagul suñ borom dako wutal ay bokk yo xam ni way lañ ndax xëri euh, job mi ngi ñu soxna leen tulloo njagay sa ko jur mudu faaxu ja kon euh, da ngay xam ni sëriñ baara kon ñoñu ko sekk xëri euh, euh mo jur soxna leen tulo mudu du faaxu ja njagay sa mu du faaxu ja matar ndumbe matar ndumbe mi ngi sëñ maamun dina ci gëna ñew matarnu mi mi nga xamni euh mo jangal nar mu dem ci ñom re Euh, santale ko loo euh, loolu nag li tax ñu ciy jublu mooy euh, sëriñ Mouhamadou Lamine Baara ni ko ay bokkam nangule dafa yéeme sëriñ Ibrahima li sëñ Baara bind du jeex waaye dooy laaj jikkooy sëñ Baara ak melow sëriñ Baara ci jamono ji jar na ñu delloo siwaat ko nag ban jàngale kan mooy sëriñ Baara bañ man ci roy ndax royukaay bu mag la woon ci lislaam waaye lu jiitu nag ak mu yoon bi muy lislaam sëñ Baara jullit yépp mën nañ ci roy waaye cig taalibe ndax dégg naa sëñ Mourou Moussa mu sañ ko joxe dàll mu ni dàll yi de du ma xamoon ni sëñ Baara dina soli dàll ma jox ko ko xoolal loolu ndakate daal mus sa gis dàll sëñ Baara mus koo gis wala mbaxana mu ni mbaxana mi de sëñ Baara doon sol mbaxana ma jox ko ko ndakate dafa mus sa gis mbaxanam sëñ Baara loolu moo dig taalibe kon sëriñ Baara doo ko jàngalee ci jullit ak kan exemple la ngoog soo ko jàngalee ci taalibe exemple la ngoog kan mooy sëriñ Cheikh Mawlana Baara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 ak bëggam lu baax dafa mel ni nag euh, démarches yi ñu war a jël pour xamlee ko nit xamlee ko jëmm dafa am ay démarches yu scientifique yu ñu war a apporter parce que ay nit boo leen bëggee jàngale jëmm da koy def ay pàcc dañ li waral ñu daje fii mooy Mbàkke Kajoor bari na kuy dégg Mbàkke Kajoor te xamu ko تعرفون ما ينتهي لجسوره وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين يا الله بيوخ رسول الله هيدنا على نتلي نيالي جيتون غير غام نعم استابيليتي ما داخ ام نتيارون سورة القصص لو ريسي باكي كاجور غني واجال فلان ماي باكي كاجور kañ fay fekk lu tax ñu ko fay fekk ñaar yooyu yaakaar naa mooy laaj bi nga xamante ni sama mbokk yu baax yi eh, jëme lañ ko suñu kaw Mbàkke Kajoor barab la boo xamante ni Mbàkke Mbàkke dafa fekk Kajoor Kajoor moo doon capitalu Sénégal moo doon daara ji gën a mag ci réew mi ay kàngam sos ko yar fa ay kàngam xam-xam wi sayru ci réew mi buur ceddu gi daal di fiy ñëw ñuy commencé di falu ak a folli waaye jotut ak dara doomi soxna yi ndax ñaari pouvoir la pouvoir temporel ak pouvoir spirituel Lat Joor mi nga xamante ni moom doomi soxna ndax sët la ci ma jaxate ka la ah waxtaan ak ba ci taxawaay ndax ñoom buur yooyu histoire bu gudd la fu ñu nekk dañoo am dañuy am xaat yi ku leen di àtteel xaadi nag du n'importe qui c'est pas porté à tout le monde mm-hmm. xaadi boobee mm-hmm. bi ñuy waxtaanee ñu jàpp Mame Mor mm-hmm. mu ñëw fa waaye ñoom baaxuwuñu dëkk buur ab sëriñ baaxuwut dëkk buur léegi nag yàqu waaye sëriñ baaxuwut dëkk euh, ba mu dànd ko nangami euh, kilomètre sos fa daara yor fa njaboot di fa jàngale léegi kejoor googu nga xamante ni amoon na hymne national ma jaxate kale moo ko ndax moo doon capitale Sénégal Kajoor réew mi damay faral di wax ni dafa am ay ëtt dafa am ay pénc yoo xamante ni yàlla rek moo ci mës a saf dara mosu leen a yirul suñu borom ñeenti pénc la dafa am lu ñu naan xàppu kebe ci Alxuraan lañ ko daan liggéeyee seen boroom yàlla defal leen ci tawfiq ba luñ ci def mu am am luñ naan tamay jaayaan lañ ciy def ci seen ndigal yi boroom ci alxuraan lañ ko doon def waaye lu luñ ko tëggee mu am am luñ naan fatixa yi njare njare seen fatixa joojee luñ ko jàng sunu boroom def ko am luñ naan dàkkuk ndaam ñeenti penc yooyu moo nekkoon ci réew mi te yàgg ñeenti penc yooyu boo bëggee xam Mbàkke Kajoor dangay ngay demaat ci dàqu ndaam tuuti ndax soxna Aminata Lo mi waajuru Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Serigne Moussa Ka nee ndax wax da nga naan diw nee te mu leer waaw boo bëggee wax ak kilifa loolu wax ngir bëgg luñ la jox waxal ngir yàlla parce que wax ngir yàlla boo tëddee nelaw dafa ni soxna Aminata Lo moo njëkk a tey cay tay cerey leeg taalaale fa néegi Tuuba mu sosol gaalaale kon waajuru Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moo njëkk a togg cere Tuuba kon loolu sun Alxuraan dañuy wax ni wal baladu tayyib yaxruju bi biisner bii wala di xabusa lay yaxruju illa nakira kon suuf su baax mooy génne gàncax ku baax te suuf su baax nag mooy ndey ju baax am na loo xam ne bàyyi mënu ko ndey rekk ko man rasulullah yow ñu ko wax ñu doom ñee ñeenti xaaj la ñett yi ndey waroom benn ba bàyyi nga gis ni kon Mbàkke Kajoor di barab boo xamante ni barabu daara la Mamour Anta Sali yàggu fa ñetti at la fa def eh, daara ja ba ba mu fa bàyyi ko hmm. bàyyi ko Seexul Xadiim kàngam yu bari di fa jàng see ci réew mi bari na daara yu kel-keli ci réew mi te foofu la ñu tànqee moo tax ma tuddee ko foofa doon rectorat bi ya ca des mooy faculté yi parce que xam-xam lañ doon uti foofu ñu fa tànqasee di dem ci tund yi ñi dem Saalum ñi dem ñi dem Jolof ñi dem ñi dem kon daara la joo xamante ni Cheikhul Khadim mujj ko nag ànd ak ñam donga yi mag yaag yu ndaw yi di rasul foofu foofu la rasulullahi njëkk feeñe suñ Tuubaa yaqazatan bi duni manaam Mbàkke Kajoor moo tax mat naa dem ndax foofu la Cheikhul Xadim njëkk a yoon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci jëmm ak ruux foofu ci Mbàkke Kajoor Cheikhul Xadim rasulullahi ne ko nag ndigal li mooy ñi nga àndal yar leen ci yitte mooy pas-pas ndax jaamu yàlla du xam-xam moo tax tasawuf toujours damay wax ne du matière bu ñu suivre comportement la rek tasawuf ñu koy jàngale comportement la imaamu Junayd rahimahullah wax na ko Malik wax na ko ndax tasawuf ñe ñeent ñett ñetti bunt rek la tasawuf ñett rek la ñetti école la al madrasatu falsafi ak al madrasatu salafi ak al madrasatu sunni ñett yi mooy tasawuf tasawuf rasulullahi alayhi salaam benn borom xam mag كان أبو بكر بلا أورادي وهو خليفة النبي الهادي وكان عثمان وقد كان عمر ليس لهم مير فما هذا القمر نيت نجكوت رسول الله أم يون ورد لتق بولو جعلين كان أبو بكر بلا أورادي وهو خليفة النبي الهادي وكان عثمان وقد كان عمر ليس لهم مير فما هذا الخبر يوم نيت نيب جابون يون ورد ولتق بولو جعلين parce que Aliyun rasulullahi moo ko joxoon werd ne ko boo koy werd na nga gëm. Hmm, boo koy na nga gëm. ba werd yu jeex nga doo ko xool. moo tax ko ca boo xamante ni foofu la maam Cheikh Anta ci ndigaleel waajur mu jigéen bi ñu miraasee maam Mor Anta Sali boobu Sëñ Tuubaa wooteegul maam maam Anta Njaay Mbàkke ni. ni Serigne Serigne Anta eh, maanaam Mame demal ci sa mag yi sa kilifa la nga am lépp ci miraas mi jox ko ko kon Mame moo njëkk a jox Cheikhul Khadim hadiya cay bokkam ginnaaw ko nag la woote Serigne Adama Gueye daal di jébbalu mag ñaa ànd ak moom Cheikh Rafal naka kazalika ba muy ñeent fukki góor foofu la jóge ndoo ko dem Mbàkke Bawol kon loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara sëriñ bi da ko faa yebal ngir mu dundal barab ndax la nekk ca barab suuf bu gënanteeg suuf ndax dara yemul ñu bari daan daan hmm. dara yàlla mu seemale dara te du yemale dara. Ah, wallaay yàlla xam na ko. Hmm. wa rafa'naa ba'dakum fawqa ba'din darajaat hmm. waaw damaa jël ñi teg ci kaw ñee. ngir lan ñu leen di liggéeyloo ak di leen jox luqmatul aysh. du ñu yóbbu ci ni kër. sunu borom subhanahu wa non la organiser aduna te ñëpp it mosuñu aw ci benn yoon wala usaa rabbuka la jaala nasu ummatan waahidatan wala yazaluna mukhtalifin bu neexon yàlla ñëpp nu ciow waye nak fokk am ñu am aw nu jor am ñu aw càmmiñ Cheikh mohammedou Lamine bar nak da bokkon ci ñi ci ñi aw nu jor li tax moy way jurum wu góor Cheikhul Khadim Cheikh Sidiye ne Cheikh Sidiye Baba nee euh Cheikhul Khadim maanaam kéemtaan la ci kéemtaan yi ndax li tax muy kéemtaan am na ayib aha kañ waaye ayibam mooy jaamu boroomam wa naf'ul wara fi subxihi wa masaa'ihi mooy dimbali nit ci ngoon ak suba kon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara feeñ ci ñaari waajur yu baax yooyee ba pare mu njëkk feeñee Touba loolu di sombol mooy benn doomu Cheikhul Khadim bu feeñee Touba. ndeysaan Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. ne ma ni ku ku nekk ci kër kilifa am na loo fay wut. sunu borom daa bëgg nit ñi di jariñante. yonent bi dafa ne alayhi salaatu wasalaam te xaadu taxaabu. dinañ joxoon ci ay cadeau ngir ngeen bëggante. képp koo gis mu nekk fenn am lu ko tax dugg. góor yu mag yooyu lu mat 40. gental seen i kër bàyyi seen i njaboot tey la seen bakkan ak seen alal ngir lan wut yàlla. yàlla day xeeñ. dëgg la sëñ Ibrahima xam naa ah. ne dinañ ñëwaat ci yow ndax li duuf ci nag bi xajundawul ci cin bi mm-hmm, mm-hmm. euh, sëñ am ñu bàyyi la nga jàll ci keneen ci ñi war a bokk ci waxtaan wi mm-hmm. ndax ku ko dégg muy wax nga xam ni ci xam lay waxe bu wér waaye nag euh, li duuf ci nag bi xajundawu ci dëgg la ndax di dina daa daañ ñawaat ci moom ah, moom professeur professeur la waaw euh, fi mu yóbbu waxtaan bi insha allah insha allah ndax niveau bi ni ñu ko waxtaane bu ñu fekkee nañ waxtaane xayaatu wa amaaluhu dafay mel ni faaw ñu dugal ci yooyu yëpp te yaakaar naa ne indi na ko ci niveau bu am solo waaye sëñ maam Cheikh euh, gis nga sëñ Xaadim fi mu ubbee ci euh, Cheikh Mouhamadou Bara mu mel ni bu ñu doon wax biographie dafay mel ni jàngatal nañu ko bi ñëwee ci sëñ Ibrahima jàngatal nañu lu jiitu Cheikh Mouhamadou Bara nga xam ne tey ñëw na ci boo bëggee waxtaan gi faa nga waxtaan dàtt ba ñëw na ci càllale gi mbokk ni ko maam Cheikh Anta Samba laale mu ñëw tey ci dëkk bi ñuy waajal bis bi muy Mbàkke Kajoor cof na ko sax ci diggante alayhi salaatu wasalaam mu mel ni Eh, woote bi nga xam ne ni ci la Sëriñ Tuubaa woote ngir li ko Yonent bi alayhi salaatu salaam digal méthode bi mu war a sensé stratégie bi mu teral ak fi mu jëm rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faxat saarifan himmati li rabbi taala rajan sax yohu bi ma in maayin léegi nag commencé tegal li nga xam ne ni mooy feuille de route lan nga ñuy sofal ci diggante ñaari kàddu yi nga xam ne ñëw na ci diggante Cheikh Ahmadou leen Bara ak dëkk bu seel bi nga xam ne ni fa la ñu waajal bis bu màgg bi muy màggalu Mbàkke Kajoor jërëjëf sëñ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بك جل جنا من سنت يا لجل صلى الله عليه وسلم ينوي بك يب ديجيتال جنوي بك زيار بي سري منتقى بشير مبكة خليفة زيارة موريد يالله في أكتوبر noonu lañu koy ñaanal sunu kilifa sëriñ Moustapha Mbakke moom sëñ Sidi al Muxtaar Mbakke yàlla fi yàgg te wér ah, sëñ am jërëjëf mm-hmm. waxtaan wi leer na tegu na ci raay bi xanaa di nuyu ci jataay bi ñu ma bokkal jataay bi muy sëriñ Xaadim Mbakke moom sëñ Sidi Muxtaar mii toog di sama xarit di sama wëllëre ñu yàgg lool ba yàlla boolewaan ñu liggéey bii nga xam ne mooy commission scientifique et culturelle bu màggal Mbàkke Kajoor ñu nekk di ci liggéey di nuyu le coordinateur Serigne Sidi Abdou Aziz Mbacké bara ko nuyu baax baax di nuyu Serigne Cheikh Thioro porte parole ak mbolam njabootu Serigne bara gi di nuyu bu baax baax si ant sam ñu ngi lay nuyu di nuyu euh, professeur fay ñu ngi koy nuyu sha allah te nuyu serigne abdou job Bisri di nuyu suñu jarbaat suñu Habibou ma sha allah tabaraka di nuyu serigne Alaaji Fall mi nga xamne moy mooy Serigne bara ak mbolam andono yi andal àndal nek sun ginnaw te ànd ak ñun ngir jëmbi Serigne bara te ci jotaay bi ah suñ am suñ baara waxtaane ko yomb mën a yombul waaye ni ko waxee suñ xaadim bu suñ Sidi Maxtaar Mbakke wax na biographie suñ baara ci askan wi fi mu gane àdduna fi mu defee lépp kon loolu du jar ñu cee jaarat professeur Faye ubbi na aw yoon ci dëkk boobu di Mbàkke lan moo tax mu nekk Mbàkke ak solo si ci nekk ak liñ ci war a xam sëñ Baara ñëw jëmmal ko ba tey turu Mbàkke Kajoor àgg fépp kon loolu itam am na solo man nag fi may soof ci waxtaan wi mooy côté bi nga xam ne mooy côté xam-xam al sëñ Baara koo tudd koo gëstu dëgg-dëgg xam-xam ngay gis géeju xam-xam gis sëñ Baara koo gëstu géeju xam ngay gis ba dootal sax waxtaane baatin ba wala wilaaya ga xam-xam yàlla suñu borom subhanahu wa moo njëkk wan solos xam-xam ci alquranu karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw confirmé waat ko Serigne Touba ñëw dëggal ko tamponné suñu borom subhanahu wa dafa yëkkati xam-xam yëkkati ay ñooñam ba wax ci alquran que yarfau llahu alladina amanu minkum walladina walladina utu ilma darajat yàlla nee na yéen jullit yéen doomu aadama yéen sama jaam ñi may yëkkati yéen mooy ñu am xam-xam ñooñu danaa yëkkati seen daraja darajaat loolu suñu borom subhanahu taala wax kon loolu rek jaroon na jaam ñi daw sàkk ji xam-xam yàlla dem bi jaag mu ne man yàlla sax ñi may mën a ragal moo ñu am xam-xam innama yaxsha allah min ibadi al ulama kon loolu jaroon naa tax jaam ñi da wuti xam-xam yentu sallallahu alayhi wasallam ñëw wax ne wala fadlul aalimi benn xadis bu njëkk sax dana fadlul aalimi ala al abidi ka fadli ala adnaakum yontu sax ñi gën a confirmer di wane ne solos xam-xam fadlul aalimi maanaam ngëneelu borom xam-xam fi ko yàlla teg yontu sallallahu alayhi ne e, borom xam-xam ni mu gënee kuy jaamu yàlla koo xam ne ab jaamu ko te rek nga xam ne xam-xam noonu te day jaamu yàlla nekk jàkk yi jullee ko war di fanaan lépp mu koy def yontu sallallahu alayhi wasallam ne ki am xam-xam li mu ko gënee ni nga xam ne man noonu laa gënee ki gën a suufee ci yéen ni ma ko gënee man kon loolu sori na dayo bu rëy rëy la bu sore sore بتاعك موحنة إن الله وملائكته وملائكته وأهل وأهل السماوات والأرض من حتى النملة في جحرها والحوت لا يصلون على معلم الناس الخير بتاعك مودا تي حدث بيمكن خبر رجع تك دانة يلا أك أكى ملائكام أك نيو يوسف وأهل السماوات والأرض بتشي خرنامي دينغري مودا بتشي خرنامي نكسين بيربخ ba ci rek wala jin ya nek ci bir geejge da danan ñaanal di julli di sëlmal di ñaanal ci ñi jangal nit ñi aw yiw te bala ko nit mëna def day am xam-xam nit mu xam-xam mu do jangal yontu salaasam am na lu mu ci tegaat benen hadith bo xam mom la ci tegaat di wane solos borom xam-xam yi seen solo fam ag benen hadith xadis bi dafa wax ne wala fadlul alimi ala al abidi ka fadlil xamari laylatul badri ala saairi kawakib yontu saa sa wax ne ngëneelu borom xam-xam ci ab ci ab kuy jaamu yàlla kese ni weer wu leer nga xam ne layla badri yedd googu Sëñ Tuubaa wax fukki fan ñaar weer yi ni muy leer naññi nga xam ne suul biddiw yëpp yontu saa nee na borom xam-xam noonu la ëppee daraja noonu la ëppee leer ci koo xam ne day jaamu yàlla kese rek kii jaamu yàlla yoo xam ne waxaguñ ki nga xam ne moom xamul dara par jaamul yàlla waaye kii jaamu yàlla wax kon baawuñu bàyyi xel kii jaamu yàlla Eh, yontu sallallahu alayhi wasallam daan ne innal ulama warathatu anbiya ci teg kon léegi borom xam-xam diggu nañ mu ne borom xam-xam ñoo dondu yonante yi kon wiraasa lu du lu foor la dondu lu foor la képp koo xam ne ku bëgg a dondu bëgg a dondu maanaam li ñu mën tudde ambiya kon da ngay gis ne kon boo wutee xam-xam rek am xam-xam kon bokk nga ñuy dondu yonante yi ah eh, yontu sallallahu alayhi wasallam ci teg mu ne al ulama mu ne innal ambiya lam yuwarithu dinaaran wala dirhaman mu donduloowuñ nit ñi du xaalis du wurus du or donduloowuñ leen ko innama warathu al ilma liñ donduloo nit ñi mooy xam-xam lañ fi bàyyi kon boobu mi waxal boppam moom yonent sanku sallallahu alayhi xamal ne man mii yonante laa waaye li ma fi bàyyi ñu ma koy doonne du wurus du xaalis waaye xam-xam la mu ne fa man axadahu axada bi xardin waafirin képp ku jàpp ci xam-xam xamal ne jël nga cër bu duun bu duuf macha allah tabarakallah kon loolu la Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul xam ba bi mu ne bërët li mu njëkk a def mooy wuti xam-xam ba dem bi ci ak yàlla nag ubbil ko Serigne Touba lam xam moom wax na ko ba mu wax ne euh, lub bi mu nawaroon bi nuuri wax yi kooku mhm. suñ borom subhanahu wa moo ko jagleel dem ba sam xel nga xam ne xel mooy dékku xam mooy ndab lii dékku xam-xam xel moo koy dékku Serigne Touba ne sama euh, xel moomu yàlla da ko leerale maanaam da ko da ko nàndale wala da koo sóobee leer wax yu waaye taxu suñ tubaa yam foofu xam nga yontu salaan suñu borom subhanahu li mu ko wax fu mu nekkoon waxal lii nag ma ci dolli man yàlla waxal lii man yàlla ma dolli ci waxu ko ci xaalis waxu ci fan wu gudd waxu ko ci bien waxu ko ci dara dana ko wax qul rabbi zidni ma waaw ñaanal sa borom nee ko na la dolli xam-xam kon xam-xam lu foor la eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ tubaa gis nga bi muy ñaan ci benn xasida habli salahan wa nawwir janani wa zidni ulum sun tubaa loolu la ñaanal sun borom ma ngi lay ñaan nga may ma defur biir ak zahir ak batin may mag ragal yalla te nga lera sama xel gis nga lera sama xel waye nak nga doli ma xam-xam wa zidni ulum kon tegah na tankam fi yantu sallallahu tek wasallam teg roy ko ci waye xam solo xam-xam limi jeñ ci ab jullit dañu wax ne ngëneelu borom xam-xam ci kuy jaamu yalla li tax li tax solo ci am solo moy borom xam-xam bi mooy leeral yoon yi mooy leeral yoon yi borom borom maanaam ki kii jaamu yàlla bu doon borom xam-xam day tëñëx tëxi na ko xam mi ngi tëñëx tëñëx di jaamu yàlla borom bu ko jegewut bu ko leerut yoon wa mënut mucc ci fiiri seytaane moo tax borom xam-xam yi yàlla dénk leen ñu war di wax di war di leeral ndax nit loo jàmbar jàmb ak loo xër-xër ci jaamu yàlla bari na gis nga ko tey waaye bu amul xam-xam seytaane da lay mën a dugal ci loo xam ne da nga ciy kus-kus di ci sotti fekk ne bu maanaam boo xamoon doo doo ko doo ko def lu mel noonu. Mhm. moo tax kon solo si borom xam am solo. moom lañ baar nag mhm. bi nga ne Sëriñ Tuubaa moomu na façon foofu ñu leeral al ilmu wal amalu jawharaani li xëyri daani yajlibaani Sëriñ Tuubaa moom bañ na xam ne yentu li ma waxoon li ko yàlla waxoon andir ashiratak aqrabina bala ngay waar kenn di defar kenn defar sa njaboot pare Sëriñ Tuubaa loolu la def bala muy defar kenn ñu ko yàlla booleel te ñuy ak njaboot nga xam ne euh, maan raay la ñoom ñu ay raaya moom ab sàmm la ñoom mu leen war a sàmm ñu ëllëg ñoom la ko yàlla laaj bala ko yàlla laaj kenn njaboot gi mu ko dénkoon la koy laaj ndax yonte sax moo ne kullukum raain wa kullukum mas'uulun an raiyati dem na ba xadis ba gën a gudd sax mu ne euh, bon bi nekk ci biir kër gi yàlla dana ko laaj nan la doon sàmmee alali sangam kon Sëñ Tuubaa ñim njëkk a defar mooy ak njabootam fexe ba jàngal leen yar leen teg leen jox yu mat mucc ayib ñii ma jox leen sëñ maam Thierno Ibrahim ñi ma jox sëñ daam rahmaan lu mu jàngal leen ndax responsabilité boo xam ëllëg yàlla suma sumaan da koy laaj moo njëkk bind yëpp daa njaboot gi la ko njëkk a toqantal ñoom ñu mokkal ko def ko dang moo tax sëñ Tuubaa dem bi jàgg mu dajal nee ne jamaalukum eh, maanaam fi mu leen wax jamaalukum ilmun wa saayun adab fa laazimoho tuk fa ankum wadab mu dajal ñoom ñëpp benn wasa wasiya boo xam ne sëñ Buur Musaa ko joxoon ci biir wasiya ba mi ngi koy wax lii ne leen seen taar li ngeen mën a waaje muy seenub taar xam leen ne mooy xam-xam ak jëfe ko ak i teggin xam-xam jëfe ko ànd ak i teggin ne ngeen ko takkoo bu ngeen ko defee yàlla subhaanahu wa taala da leen fegal wadab wadab lu ne ngi ci biir gàcce goo xam ne da koy gis léegi ci biir ku lay ku lay ku lay humilier humiliation boo xam ne sa ñàkk xam-xam moo tax mu lay humilier ak ak ëllëg yow ma xëyam nga am gàcce yu yëpp ngi ci biir wadab loolu lépp lay lëmb moo tax mu ne suñ tubaa ne ñett yi bu ngeen ko làmb suñu borom subhaanahu wa taala da foofu la doon de Serigne Touba ci xam ndax 45 ans la dund bind loo xam ne damay wax ne ku ko bëgg a xam nañ bàyyi wil baatin gi nañ bàyyi wilaay mais nañ ñëw ci xam-xam bi gannaaw Serigne Touba ci njabootu Serigne Touba gi mu ëpp lum taalif mu ëpp lum taalif ci njabootu Serigne ñoom ñëpp d'accord nañ ci te 46 ans la dund. wala yàlla dogal xasida mu nawir bu ñaan bi ma tiim da nga gis ne sëñ Baara ci biir ndax moom kim tànn la dëgg la jaar na am njàng waaye nag lim xam moom ilmu laduni la. علمناهم لنا علما يلا موقع ديف كو نيخ واي بودون اس بو ورا مانا جانغ ريك 46 عام ورا جي مانا ديف ليغا ديف ني ديرت موتاخ تي بير خاسيد جونجون مانا وير بوديان ني والله يرزق ما يشاء بغير حساب ويعلم ما يشاء بدون تعلم وبقراءة الكتب لولو سن لولو سن بارو يلا موي ورسه گله كو نيخ يلا مكو جي القران واي موي خمال تامي كو نيخ تي لود ام جانغ تي لود لير تي اي تيري loolu suñu am pour bañ a monopoliser kàddu gi xam-xam boobu insha allah lañ bëgg a indi nag ci kanam pour ñu xam ne sëñ Tuubaa rek géeju xam-xam la te daa jot sëkk ni ñu war wuti xam-xam euh, sëñ maam Cheikh maam Cheikh yaakaar naa ne sëñ maam Cheikh fi mu daanelee euh, wane ne stratégie bi nga xam ne ni euh, Cheikh Amadou Lamine Bara réussir na ko ci xam-xam xam nga ñeent fukki ak juróom muy 45 ans mu bind ci lim ci lim ci bind léegi rek maa ngi tiim benn téere bu sëriñ Ibrahima Faye indi euh, professeur sëñ xaarim ma ci woon ay bayt yi mu woyee euh, Cheikh Amadou Lamine Bara waaye ci biir ñaan gi rek da ngay gis euh, da nga koy gis ci xeeti woye ni waajuram mooy sëñ Touba bu daan ñaan suñu borom day taxaw taxawiinu avocat gis nga ni muy ñaane sax du maanaam du du seppi rek ñi nga xam ne nii mooy xeeti yonent bi waaye day day boole mbooleem ku sosoo ci banni aadama gis nga fële خط أمة المصطفى عن كل مفسدة والتر حامل خلقها. جزء كيف كيف كيف كيف فوزي نمام لم وحني وصرف حذاب النار عن جملة من بيتعلق من النار دمن وجملة الإخوان من أخاربي داركم أسي في الدين أو في الدين والأجانبي. جزء كي سيستم يالله يا دافي وفرد فعذرنا بسر سرك وكسر خيرنا. بوكو تابي كي سيستم بمي يعني بيت مانا ميثود بمي يتلزي بمي يخل دفكنك اسمع اسمع دعاءنا فإنك سميع. waa wa axnil jamia bi wax fasil jamia xam nga dafa am mën a ñaan am na solo waaye mën a ñaan mhm. xam ki ngay ñaan mooy kan jox ko dooleem ba noppi mhm. pouvoir am bi mu yor ba noppi door koo ñaan loolu am solo kon yaakaar naa buñ duggee ci xam-xam eh, dana am solo loolu yaakaar naa ñu bàyyi la ak moom baax kaddu mhm. euh, sëñ bi maam Cheikh dinañ dikkaat ci moom ci xam-xam xam nga dafa wax léegi bi muy tëjee sa ñaam al wala du sirru abihi sëriñ Baara doo téemi mbindam da nga xam ne sëriñ Tuubaa la rek ndax euh, euh, sëriñ Tuubaa li nekk ci moom li nga wax li sëñ Tuubaa ni alamte ni xay bi xataa surtout man tabian sëñ Baara yàllaa ko xamal nag sëñ Ablaye Diop Bichri yaakaar naa ni sëñ maam Cheikh li mu wax léegi dina ñëw ci xam-xam ndax najaaniyal munzilu bil qurani xataa adawtu mawrida zaman sëñ Baara kon euh, sëñ Tuubaa mooy géeju xam-xam bi moo wax ni man maay géeju xam-xam maay delluwaayu ko ay gars ñi nga xam ne duñ nam duñ duñ bëggee mandiku ci xam-xam ci man la ñuy dikkaat te moo waxaat ni ndonoom kon dafa mel ni sëñ Baara dafa donn sëñ Tuubaa ci li sëñ ni mooy ndonoom ndax Sëñ Tuubaa moo ne bi xidmatil quraan wal xadis moo ne sama xam-xam mooy alquran ak xadis sama sama héritage kon sëñ Baara dafa donn Sëñ Tuubaa ci li Sëñ Tuubaa bëgg kon euh, sëriñ Ablaye Diop Bichri kan mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. waaw kay jërëjëf euh, maam Cheikh Anta Samb jërëjëf sëñ Hamidou Diop xam naa damay def résumé rek ci li ñu waxoon waaye balaa loolu ñu nuyu sëriñ Mouhamadul Mountakha Bachir mi nga xam ni mooy xaadimu rasul tey ci kaw suuf yàlla na fi yàgg te ba naal yëpp mu àggale ko di ñaanal njabootu sëriñ Touba gi yëpp ñu topp ci ginnaawam ku ne yàlla na la yàlla wéral te dolli sa taxawaay nu ngi ñaanal njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp di nuyu sëriñ Xaadim Mbàkke mii nu bokkal plateau bi di doomi Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan weejuram wa di sunu jàmbaar ja yàlla na ko sëñ Touba fayal maa ngi ko koy wax léegi ni ko kenn mënu koo fay ku dul sëñ Touba moom rek a ko mën a fay ndax li mu liggéey yàlla na ko maamam Xaadim Rasul fay ñu ngi nuyu bu baax euh, sëriñ maam Cheikh Mbacke di nuyu sëriñ Alaaji Fall di nuyu bu baax sëriñ Xaadim Diop di nuyu professeur Ibrahima fay di leen nuyu yéen ci taxawaay bi di nuyu mboolem jullit yi nii teewlu dinu nu seetaan waxtaane Cheikh Mouhamadou amin Baara mooy waxtaane borom juddu bu rafet te rëy waxtaane Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mooy waxtaane borom xam-xam bu maandu te bari le ko lool. waxtaane mu Mouhamadou Lamine Baara mooy waxtaane borom sañ-sañ ak jagle ju rëy ci boromam su ko defee ñetti pàcc yi jot a ubbiku muy biographie Serigne Baara gane addunaam mag feeñam ci Touba yooyu yëpp indi nañ ko indil euh, nañ ñu tam Mbàkke Kajoor taxawaay bi mu am ci yoonu murit maam Cheikh ubbi léegi xam-xam kon dañuy laal ci ñetti pàcc yooyu rek daal di mel ni lu ñuy def rek ixtisaar jëm koo résumé ci ñetti pàcc yooyu yëpp. Cheikh Mouhamadou Lamine buñu xolé ci xam-xamam ak juddoom ba rafet dañ ni buñ ne diw amna xam-xam wala diw rafet na judd wala diw manduna na fekk ña xam am wilaya ca yàlla ñu seereel ko ko wax ko ko kon magam moko ko seereel fallu Fallou touba Tuubaa leen bokk meññ sëñ fallo ko seereel xam-xam bu rëy ba sëriñ fallu mo wax ni wama yujarihi fil maidan min ahadin fil ilmi wal hilmi aw fil joodi wan nasabi sering fallu mo wax ni wama yu jarihi ken du gam lesa sa bop ak sëñ baara ñu ne ko ci fan mu fil maidani ci lef bi lef moy yoon wu wu jaar avenue loola tub arab di wax maidan muni kon amul kenn kuy gam le sa bop ci yoon wi di yoonu islam di xal wu rëy wii ku ci gam lesa sa bop ak cheikh Mouhamadou Lamine sama rak ñu ne ko ci nan muni min ahadin nak gennuma ci kenn ci lan lañ dun gam ak mom ci yoonu wu rëy wi mu ni fil ilmi ci xam-xam bi xam-xam bi newon ci mom kenn du gam-gam lek mom waye wal hilmi ak ci lewet kon dëggal na li nga waxon legi ñu bari dañu gis batin bu reuy bi ak sañ-sañ bi mu am ci boromam ñu jàpp ni mom da jëfëndiko won batinam rek lo way wax mu taal wala mu lak fi dedet ku lewet la won moo tax suñ fàllu ni fil hilmi bobu moy sago waaw xilmu ak ilmu ñu ilmu moy xam-xam xilmu moy sago lewet mu ni ak ci lewet gi waaye aw fil jóodi ak ci tabeem Cheikh Mouhamadou Lamine ku tabe la woon te alquran ba muy tagg gaa yi dëgg dañuy tata jaafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum xawfan wa tamaan wa mimma razaqnahum yunfiqun kon mooy ña nga xam ni bu guddi jotee dañuy naafi la jëm fajar mooy ña nga xam ne dañoo ragal seen borom ba duñu tala tëdd waaye mooy ña nga xam ni la ma leen wërsëgale man yàlla ñu ngi koy séddale te yàlla tax ñuy bàyyi xel ci وما أنفقتم من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين ولو ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم سورة المزمل كون باي وون نانو لولو خيل سيرن بارا بوكون تي كون واي سيرن فالو دولي تي وان نسبي اك اسكان ورافت نالاي اي وي جورم واخ غاكو ليغي سخنا تلو مو تفسير مختار بنترو روب nekkoon kóllëre sëriñ Touba. ñu gën ñu ñu ñu xamoon ko bu baax a baax ci ni mu bëggee woon sëñ Touba teel a junj mbiram. kana yoroon soxna Aminata Lo mu tedd moomu sëriñ Madieng Fallou mu mag ma maam Mor Madieng Fallou yor ko denc ko ba am ci doom ju baax ci ñoo sëñ Ahmadou Moukhtar jeng kóllëre sëñ Touba la woon. loolu temps bi du ko may sëñ bi demaat na ci diggante bi ba ci xaburoom summi la moom sëñ Touba dàllu karbat jox ko sëriñ Modou Mbaye Mbëgge. ni ko su ma jugee ba dem na ngeen gas bàmmeelam ba tollook moom ngeen solal ko sama dàllu karbet xaw ma lu ma lebaloon de waaye tey fay naa ko ba képp ku tëdd ci wetam yàlla jéggal na la kooka moo yoroon soxna Aminata Lo ca la am sëriñ dégg nga ca la am sëriñ Ahmadou Mokhtar Dieng mi ñu tuddee sëñ Ahmadou Mokhtar mii tey di xalifa Daaru Xuddoo Silif Lem mm-hmm. ñi doomi sëñ Modou Moustapha mm-hmm. jëmm ju tedd joojaa jur sëñ ma Yaasin Ummi Dieng mm-hmm. du ma ci ñëwaat waxtaan naa ci moom bërki démb fii plateau sëñ ma yaasin umu jëng di sëñ goyaar ni ki su ginnaaw suba ci la màggalam kon eh, soxna amee Lo ba mu jógee foofa suñuy nopp ci la tàbbi ci loxol Cheikhul Khadim am ñaari kilifa yu mag ci yoonu islaam muy sëriñ Modou mustafaa kooku doy na guddi teg ci seex mu amat Lamine Baara borom guy mind ñaar ñii la am a xaadima rasul waaye Baara am particularité bu rëy moom rek a ganee àdduna ci doomi sëriñ Touba yépp biir Touba. waaye itam ci gane àdduna am leneen lu rëy feeñ ci gane àdduna tey di faj aajo tey tey waaw gane tey adduna di fajaale aajo ndax keroog bi mu feeñee ci tuuba sëriñ bi mag ñi la woo ñanay mag ñi sëriñ daam Abdourahman Lo ñanay mag ñi sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ñan ñooy mag ñi sëñ Massamba Diop Saam ñan ñooy mag ñi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñeenti ñi ku leen ëpp ci yàlla. sering bi ni li li ngeen doon sàkku sama kër tey jàppandi na ci yéen li ngeen bëgg ci yàlla yàlla dina leen ko defal ci darajay gan gi ma am tey muy Cheikh amadou Lamine lu fi waay bëgg tey wax ko yàlla defal la ko ni sëñ Ibrahima sar Njaañ ana lu bëgg mu ni ko man de li ma bëgg mooy nga di jëfandikoo sa ndigal te bàyyi say tere ndax xam naa yow loo digle moom la yàlla digle sëriñ touba ni ko yàlla may na la ko ci darajay gan gi Cheikh amadou Lamine daal wax sëriñ Masamba Diop Saam ana loo bëgg mu ne ko may ma ma nite ndax nite lu am solo la waaye tam li ma bëgg yaa ma ko gën a xam soo ma koy defal nag ma ci booleel nite ak attan ko Serigne Touba ko yàlla may na la ko ci darajay sama gan ji Cheikh Mouhamadou Lamine daal di laaj sëñ Daam Abdourahman loo ana loo bëgg mu ne ko taalibi bi sëkk njëkk a ci yow ba kii mujj a nekk murit ku ci tooñ yàlla ba mu nar laa jàpp ëllëg tab tabbal ca safaan ba mbàkke nag ma jox daraja ju toll nii kenn di lakk ëllëg te xam ma bu mu am nañ jël sama daraja ma wuutu la sa taalibe yépp seen mugal ba ñépp mucc ëllëg ci darajay gan gi nga may ma lool sëriñ Tuubaa ko lii tax nga man ko mooy bis ni tey ba ngay dem ci barzaq da ngay naafilaa kaamilu alquran ñaari rakka bu guddee day taxaw ña euh, naafile alquran ñaari rakka ci xaaju kaw xaaju suuf fële day jël faatiya baqara ali imran nisaay may dalan am laxra lan faal taw ba huut yunus yusuf rahat ibrahima hiji nax lisray këf fi door a jël mariama taaxalan biya xajji nooru furqaan ba keroog muy egg naasi mu koy def ci ñaari rakka diiru cinquante 52 ans ci darajey sëñ baara mu ni ko ki ci topp loo bëgg yow maam Cheikh Ibrahima Fall mu ni li ma bëgg mooy nga defal ma mbàkke ma lay gën a bëgg ci darajey sëñ baara loolu mu ngi xewe Touba Serigne baara indi boobu bunt kon fajkatu aajo la woon keroog bi muy feeñ waaye mu nekk kéemaan gu waxal boppam ci xam-xamam ndax lu waaye di wax baax na waaye li boroom waxal boppam moo nu gën a xam boppam Serigne baara moo wax ni yaa hëdiyan allamtanii rabbaytanii shaqaytanii kax sa safa rabbaytanii déggal yàlla lay waxal de àllamte nii xamal nga ma yow yàlla yaa hëedi yan yow mi aji orienté aji gindi hëddayte nii yaa ma gindi waaye moo ci de saqayte nii yaa ma nàndal yaa ma jox ma naan kax sa safaa ci kaas boo xam ne ku ci naan sa lépp sell ci ma naanal yow yàlla waaye rabbayte nii yow yàlla yaay ki ma yar ndax fala yam mu ni déedéet àllamte nii yaa rabbi min ladunka ilman yaqiniyal aza wa shakka àllamta nii xamal nga ma yaa rabbi yow yàlla sama boroom ci loo ma xamale min laddun ka ci sa ilmu ladduniya bi yaa ngoon ngeen diggante xadir ak Moussa ilmu ladduniya la xadir amee musa di yanantu bokk ci ulul azmi mu mujj nangu ni kii moo ko raw ci xam-xam ndax la muy wax ci ihsaan lay waxeek moom loo xam ni moom xam-xamu sariya rek la yor eggul ca loola mu mujj d'accord ni ko dëgg-dëgg mënatuñoo ànd heza firaqu bayni wa baynaka ca suratul kahfi mënatuñoo ànd nañ tàqalikoo parce que li may xam ilmu ladduniya la sëriñ baara nag ni sunu boroom yaa ma xamal min laddun ka ci sa ilmu ladduniya bi kon yaa ma ci xamal loo ma ci xamal ilmal xam-xam boo xam ni yaqin yal asa daf maa fegal lor ak lan wa shakka ak sikki sàkka ndax nit su amul xam-xam day am incertitude day dute ci lépp moom dafa am yaqin moo tax mu ni kon yaqin yal asa wa shakka loolu dootuma jege ngir xam-xam bi maam kon xam-xam boobu sëñ baara magam seere ci moom mu ngi ci moom waaye boo tuddee sëñ baara mooy tudd nga wilaaya ju rëy ci yàlla sëñ abdul xaadir moo ko seeral ñoo bokk sëñ tuuba sëñ abdul xaadir dani nitu yàlla yi de am na ci ñoo xam ni dañoo am fital gu leen yàlla jox waaye joxu leen ay wal yuñ ci def njir tiire fital boo ko yore ti amoo bal doo tiire sëñ abdul xaadir ni am na ci ñoo xam ni yàlla bali kese la leen jox waaye amuñu fital guñ ko yeb ngir ni am na ci nag ñu am bal ak fital waaye amuñu ndigalu yàlla pour tiire ni waaye am na ñu néew ñoo xam ni yàlla na jox bal jox leen fital jox leen ndigalu tiire du ñu luppi mukk ni sëñ Modou Lamine Baara sama mag noonu la mel ci nguuru yàlla ki kon kamu bokkal sëriñ Touba moo seere wilaaye gu réy gaak jubóog ak boromam dëgg la Serigne Moussa Ka wax ni faj xaaju moo ci gën a gaaw lu mu wax boroomam mu ni waaw day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi mm-hmm. day woy te jànguloon xaraf te man daqaam du ca suruf moo man arab te man wolof jommal na gaa yi xarnu bi rijaal yi xam nañu dara jaam bu ne jalañ ñuy safi jaam nërëm nërëm di safi mbaam raamal ko war na xarnu bi waaye sëriñ Touba garanti ko tam garanti ku ànd ak moom sëriñ Baara sëriñ Touba moo ni ko ca lettre ba ko bind yow Cheikh Mouhamadou Lamine Dey maa ngi lay bind man sëñ Touba bataaxal di la wax ni wax jii ma lay wax du samay wax waxi yàlla sama boroom jaare ko yi yanantu bi mu jox te ko sama loxo ngir ma jottali la ko intermédiaire laa ci nee na yow sëñ baara képp ku ànd ak daxalal janna bi xayri isaab képp ku ànd ak yow duy dugg àjjana te kenn du ko lijjanti tey ak ëllëg yàlla fàggul na la ko yow sëñ baara defe naa loolu jagle la waaye mbàkke kajoor it di jagleem bu ñu fàtte ni mbàkke kajoor mooy origine yoonu murit fa la lépp soso maam Mor Anta Sali ko sanc ci 1878 1881 3 ans mu wàcc ab xam ngeen ni sëñ bi wax na ko léegi sëñ Fay dikkub Lat Joor ndax Lat Joor dafa perte bataayu Looro ci digganteem ak tubaab bi daw ci mabba jaxuba mu fat ko proposé ko mu convertir bi mu ko convertiroo ba Lat Joor nangu mu fat ko mamor Anta Sali nak wuy ji woote Màbba Jaxu ci bi mu woowee kilifa diine yépp pour jàppale ko ci former état islamique ca ñoro ñu xeex ak pinel laprade le 30 novembre 1865 ci lañ xeex ak pinel laprade xexu paté Badiane biñu gagné piné la prade ñu continuer tok fa bëcë ca diir ba euh, Maba Jaxu Ba ak bursin nyu ñu xex ca bataayu sombu 1867 mu ñak ko mag ñi dal di dëppaat dik biñu ñu dëppee ca la yàlla dogale Mamor Anta Sali dilsi bi mu ñëw sé andak Lat jor Lat jor samp état bopam ci atu 1871 bi mu ko sancee xam ngeen ni Lat jor boba cil cil maxa la mu dëkkal Mamor Anta Sali ci wetam ñu xaw a làngante fële nekkoon ca ngébbal waaye ñu def fa as diir mu daal di randu moom la Joor dem ca déqale Maamoor Anta Sali randu dem léegi euh, bu mu demee Sugeer Maamoor Anta Sali dem moom ca Mbàkke Kajoor ba mu fa nekkee ñetti at la fa dëkk bu ñu fàtte ni téere dono bi am tey alxuraan ji ñuy donante Mbàkke Kajoor la doore ndax bu ñu fàtte ni maam ay Aysa mi ci ngay moo jur Maamoor Anta taaw ba di Abdul Xaadir bi ñu ko bindalee kaamil boobu bind ko muy kaamilu dono bi yàlla dogalee mu wàcc liggéey ca ŋay ci atu 1864 wala 5 du ko sori bi mu wàccee liggéey kaamil bi ñëw ci loxol Mamor Anta Sali mu donn kaamil booba kaamil boobu Mamor Anta Sali donn ko ci atu mille 1865 téye ko ba 1881 guddik talaata mu wàcc liggéey ñu rob ko déqale kaamil bi ñëw ci rakkam sëñ Mbàkke Kajoor donne ko foofa mi jiite woon Mbàkke Kajoor téye ko 1881 ba 1908 mu wacc liggéey kamil bi jóge ci moom ñëw ci Mamor Jaara borom sa magi mag mu donn ko 1908 ba 1921 mu wàcc liggéey ci bisu altine mu ñëw ci loxol sëñ Touba sëñ Touba téye ko 1921 donn ko juróom benni at wàcc liggéey 1927 mu ñëw ci loxol maam Thierno borom daaru mu téye ko 1927 ba 1943 16 ans mu wàcc liggéey kamil bi daal di ñëw ci sëñ Amar Fall Mbàkke sëñ Baara Touré na ko mu jamaatee ci Mbàkke Kajoor muté ko 1943 ba 1961 mu wàcc liggéey kamil bi dal dem ci loxol euh, mbokam ma di Serigne Omar Mbacke ginnaw bi mu dem ci loxol Serigne Ñaaña Mbacke ginnaw bi mu dal di wacc ba agsi ci loxol Serigne Abibu Mbacke imam wax nañ ko léegi mu gorn ko 1981 téye ko ba atu 2003 bi mu wacc liggéey kaamil bi dem Serigne Abdoul Khafour Mamor Diarra borom sam jugge fa 2003 ba 2005. 2005 mu dem ci loxol sëñ Saaliyu borom jàmm ak jamono mu téye ko ñaari at 2007 mu wàcc liggéey kaamil bi di wër tay ba mu ngi ci loxol sëñ Abbas Mbàkke mi nga xam ne tey jii moo mag ci njaboot gi kaamil booba cosaan la bu ñu fàtte ne mu ngi doore woon Mbàkke Kajoor dëkk boobu tam di Mbàkke Kajoor fa la Seex Ibrahima Fall Baabul Muridiin jébbaloo ci weeru koor dëkk boobu di Mbàkke Kajoor xam ngeen ne ba tey sëriñ aadama Gueye xabroom mu nga fa ñu koy siyaare mooy ëwalul muridiin moo njëkk a ji jébbalu ci murid yi foofee la tey ji xabroom nekk ca Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor kon buñ ci duggaatee mu gën a yaatu lu ne fa la xewe te foofa la sëriñ Touba jagleel Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon boroom waxtaan wii daal léppam jagleel ci kër sëñ Touba sëñ Cheikh Anta mën na noo yëkkati jotaay bi daal di daal di sëñ Modou Ndiaye Bara lan la ngay wax يا ربنا إن الورى تدرع لأوليائك معا ليشفعوا يا ربنا إن الورى تدرع لأوليائك معا ليشفعوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا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 xar baax la feese bani goon baay baa ko fal ci xarnu bi baatin ba jaaxal na Kajoor moo tax ñu fal ko lëm ca biir gisee ma ngay ni kuy lu mat ci xarnu bi fa jaaja moo ca gën a faj aajo moo ca gën gaaw faj aajo moo ca gën gaaw ku sopp Sëriñ Baara Baay Cheikh Modou Baara Baay Cheikh Sidil Muxtaar faj aajo moo ca gën gaaw lu mu wax borooma mu ni waaw day fal di foli ci gaaw mat naa ragal ci xarnu bi day woy te jànguloon araf te man daxam te du ca suruuf moo man araf jomal na mboolem xarnu bi sañ-sañ bala doon ci moom jagleem nga jiitu na juddoom mbër mu ko suuf daal di meloom xajul ci xarnu bi yal na nu ko may booti lamin fegal ko ayu bépp noon ku dégg ñaan gi neel amin ngir yàlla naatal xarnu bi mbàkke kajoor mooy cosaani baax mooy dalu murit mooy kër sëriñ baara mbàkke kajoor mooy cosaani baax mooy dalu murit mooy kër sëriñ baara taalif nay téere yu siiw te biire nay soore cheikh baara mbàkke ki taalif bunyaan mi noon na diiwaan ku dégg bunyaana yem sëñ baara ki taalif bunyaan mi noon na diiwaan ku dégg bunyaan yéem sëñ baara sëñ baara tanaan quraani jaaxal nga waane Cheikh Modou Lamine Bara barakallah sëñ Mamoun loo gay eh, dégg nga fi waxtaan wi jaar suñ déggee waxtaan wi yëpp dégg nga fi sëñ Abdoulaye Diop Bichri daanelee sëñ Mouhamadulin Baara Cheikh Mouhamadulin Baara mbokkum ñëpp yaakaar naa ne nag duñ la wax ndaam ndax yow ndaam eh, tubaarkalla kaddu gaangoo waaw jërëjëf sëriñ am mhm. naa bi nu ñaanalee sëñ Cheikh Sidil Mokhtar yàlla dolli ay leeram mhm. ñaanal sëñ Touba sëñ Mountakha Bassirou mu yàgg loolu te ànd ak wér mhm. di siyaare sëriñ Khadim Mbacké mu Cheikh Sidil Mokhtar. ak Serigne maam Cheikh mu Serigne Khadim Awa Ba Serigne Abibou Diop. Serigne Abdoulaye Diop Bichri ci kàddu yi am solo yi sëñ Ibrahima Faye sama oustaz. Serigne Asfal ak njabootu Serigne Baara gi fi teew yëpp. di la nuyu di nuyu sëñ Cheikh Anta Samb. di di di rafetlu rek jootaay bi. ndax sama Serigne daa woy Serigne Baara. dafa ne diiwaan fa gaayee di teew. turam waa fa gën a siw koo laaj turam mu ni waaw xam naa Serigne Baara. waamul ku ñëpp a ko xam. ak malakoot ña fa am barkeeg ngërëm ak i seen jiitey Serigne Baara. kàngam yi bur di waxal ca kuur si yoog ñamu fal seen njiit la ñëpp nangul mooy Cheikh Modou lamin Baara Touba la feeñ fa kër Cheikh Bamba moo rëy mbir moo sédd gaa yi di mbër moom Cheikh Modou lamin Baara keroog ba mu ganee ci la seex naa Bamba seexali seex yu xuus ci Bamba ba jeex ngir Cheikh Modou lamin Baara Cheikh Abdouloo ma fa ndaam mbokk la tey sama maam bisub keroog am na fa daam ay ngërëm ngir Baara Ahmadou Numbe itam dampe na ay ndami ndam keroog ci la am ka ngir bara daru asan ka di mak bisub keroog ci ni ay mbiram dafa jak ngir gan gi cheikh bara ak mami modou badar dar masamba ba bisub seddu na ngir cheikh modou lamine bara ak borom ka itam cheikh ibra sar nga xam bisub ci la am ka ngir bara wa kon motax nga deg seigne Moussa Ka ne keroog ba mu feeñee ci dayru dunya la dam xeetale xeetam bi khairu sunya yana baye ba tes di jema awdam serigne daam ko ne togal ma jël ba dem sam waaw mu ne kon sëriñ bi ak ñamu nàmpal asal dañuy naaw mhm. ku déggoon li ma wax xam ni baara day naaw waaw loolu nga wax nag ci maanaam ñi doon jàpp ni sëñ baara da ñi ñi dañ koy ragal ak da doon xuppe mhm. sëñ baara milul woon noonu mhm. sëñ baara da daan ñëw ci dëkk xool ko fa gën a néew doole mu dal këram lu ñu ko yendoo siyaaree ba ngoon buy ñibbi ba kook kooka def ko millionnaire ñibbi ba déwén bu ñëwee fekk kooka këram soppi ku mel ne neen sëñ Baara régulateur de société la woon nii Mbàkke Kajoor doonee biir sa mouridisme waaye sëriñ Baara moo doonoon sapeur pompier ci yooyu jamono ndimbal ak paj aajoog lépp sëñ Baara ko amoon fi mu juddoo nag doy na honneur ci réew mi soxna Aminata Lo xari maam Aminata yàlla yelu xujja kumba soxna Aminata Lo sëñ ñamet tafsir Matar Binta baraan awa ndey baraan awandey mi jur Serigne Makhtar Bintaloo ak Modou Mbaye Tooj mi jur sëñ ñoom tafsir Makhtar Binta ñoo bokk lépp kon kon sëñ Makhtar Binta ak soxna Amintaloo bàjjan la ci moom ñu bokk loolu ci ndaam waaye sànq nga tudd Makhtar Ndumbe Jóob mooy naar bi da ko ne Kajoor sëñ baare na ko ak Siin ak Saalum ak Bawol ak fépp dey ndax Makhtar Ndumbe maamam daa jàng alxuraan dëkk bu tudd Waregu Njataar mokkalee caaminu Jolof ca daara Maam Masamba Caam bi fa maami Serigne Baara jógee grammaire amagul ci Afrique maami Serigne Baara njëkk bin livre grammaire tuddee ku Muxaddamatul Kokki ànd ak dongee kër nijaayam nijaayam ne ko damaa bëgg dëkk yow ci kër maami Serigne Baara bañ mu ne ko ndax lan mu ne ko damay bañ bu ëllëgee ma samp sama sàkket ñu seppi ko mbaamu ruuj ñu ni ma fii doo fi bay nijaayam nag kon xolal ci àll bi fu la neex ci la fekk Dakar gu sax ci kaw xorom doom mu def fa léemaayam tuddee dëkk Madinatu Munawara gorgare bi sump ya di toog xoox yi xale yi naan mataara ngay kokki kokki moo tax Kajoor Bawol Siin Saalum Fuuta Waalo Jolof fu fi sëriñ mën a ne tarixa boo mën a bokk fa samaam sa maam jàngee maami sëriñ Baara jàngal dem Matar mu sanc ndaam Matar naar bàyyi koo Louga muy maamam ba ñibbee la sanc ñombari loo Yuusu Mbeng jóge mbul mbay asumbéri kokki mbay asumbéri dara maan faa kumba ci la dara maan sëriñ amar ase ngakkiten gañmo huraja mbakol maskumba belel mara mbaki mbaki baari babacar kuma ngari jaga fatim diagne diagne jaga sen darami darami skal kiti ginnaw ndofan ñoom ñëpp bisu dimanche sukki fan ak juróom ñett weeru kori 1669 la leen maami Serigne Baara dajale na leen yàlla nee na lépp li baax ci kokki jox na ma ko waaye barke beeg tool yi topp na Maara Mbàkke ñaan naa fu lu baax ne sama askan bokk moo tax boo demee jësa awse ko jawaabu Abdou Latif ba kokki daane ki suul fii muy maami sëñ baara kum maasee jamono mooy soxut bu samaan waaye dana mujj la ma gën a bëgg ëllëg ay doom ko sa dama koy moom muy Touba moo tax Cheikh Sidi Mokhtar sama waaja bi mu toogee di sëñ Touba dajale lislaam gi ne Tiijaan murit xaadir laayen bëggatuma koo dégg moo ko war a def parce que mooy gouverneur bi gouverneur lépp maama ma jàngal ñëpp moom nag mënumaa tëj te tudduma ko ndax dama ko ne woon li nga daan wax Cheikh Sidi Mokhtar waxal ko borom kër ngan na saa waa ji mooy mbër mi yokk jumaa ji ku gis sooroor yëg jëmmam ji gërëm Seex Sidi Muxtaar ñaaree de son ca Madina sooroor yooya agsi na waa ju jëf tàbbi àjjana sant Seex Sidi Muxtaar musal na réew mi ci balaa moo fi jëlee Ebola wallaa ki feebaru Ebola ñemewul Cheikh Sidi Mokhtar nawet bi naroon a bekkoor diggante bawal ak kajoor booloo di jooy ndaxum noor dem wax ak Cheikh Sidi Mokhtar sama sëriñ ba digle ay ñaan wax ak yàlla mii di raxmaan réew mépp maase di ñaan ndigalal Cheikh Sidi Mokhtar waaye ci guddi ga la taw ma taw ndox mu bari ànd ak ngelaw réew mépp maase naan ëw kenn du Cheikh Sidi Mokhtar ma ne ko Mbàkke Bàlla réew nga vainqueur tu es le meilleur des vainqueurs nun murit yaay sunu leader antal dama koo fekk ci kër Sëñ Tuubaa ñu ne suba la kasu rajab muy génn ci oto muy génn di dugg ci oto bi di dellu tanim mm-hmm. ma ne ko jumaa ji mm-hmm. mu xool jumaa ji Seex mm-hmm. Sidi Muxtaar ne jàkk jumaa ji xool ko ma ne ko Serigne Fallou Mbacke sa baay ba ma ne ko Seex Modou Moussa ko fondement sëñ Fallou sa baay ko inauguré 63 sëñ Abdou Lahat yokk peinture sëñ Saliou Karo Alaaji Bara Tall Lampi ma ko yoona bi nga ñëwee jullit yeeg murit yëpp liggéey bi jeex na ma ne ko nga toog fi nga toog jël juróomi soorol Touba yóbbu Dakar juróom-ñaari na nga indi ko Touba tëj armel yi ubbi bàqa yi toxal garage bi jëlee fi daral bi pour sautur ila Touba samp université bi ascenseur nekkin fat place mu def ko kër sëñ Touba gi ci Daaru Marnaan le talent de kër ngaana noobu de Mbàkke Kajoor foofu la ñuy daaloo sax euh, sëriñ Mouhamadou Mamoun euh, Lo Gaydel euh, sëñ Cheikh xam naa bala bala ñoo ñëw ci sëñ Alaaji Fall yaa koy dugal ñu ñëw nag ci màggal gi yaakaar naa ne saf na sàpp sëñ Baara Cheikh Sidil Mouhtar moo fi mujj ci njabootuk ma Mouhamadou leen Baara danaay waral faral di wax ne li mu réussir ci yoonu murit réussir ko ci lislaam mboolem projet yi mu engagé woon yëpp réussir na ko de cent pour cent moo xam likk lislaam bi muy benn moo xam projet yi mu taxawal moo xam doon Serigne Touba te mate ko sëkk ñu àndandoo teewlu biographie mu del ci plateau bi ñu màggal ku jóg di màggal di yàlla màggal des na la màggal dana sëriñ Sidi Moktar Mbacke juróom ñaareelu doom ci sëriñ Baara Mbacke juróom-ñaareelu xalif ci cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi gane àdduna atu 1924 ca Mbàkke Kajoor wéyjuram bu jigéen di soxna Mati Lay sëriñ Sidi Moktar Mbàkke doon yëngu ci lu bari bokk na ci mbay ak sàmm sëriñ Sidi Moktar Mbàkke réalisation yu bari mu def ko gannaaw ba mu toggee ci xalifa sëriñ Baara Mbàkke mu wéyal liggéeyu waajuram bu góor ba ak itam ñaari magam yamu wuutu mu daldi nag tabaxal ay daara yu bare bari taxawali tamit ay kër yu bare bari yu mu jagleel sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Sidi Mokhtar Mbàkke ci mbaaxam ak xolam bu yaatu ba at bu nekk muy yóbbu ay doomu aadama ngir ñu siyaare ji yonant bu tedd ba te duñu ci dugal uh, seen dërëm ba tey nag sëriñ Sidi Moktar Mbacke ba yonn yàlla tey ji mu ngi woy di def li ni mel sëriñ Sidi Moktar Mbacke eh, tabax barab bu yaatu bu ñuy jànge alxuraan ca kuy mbind yamul foofu fii ci ndakaaru ci HLM 4 mu tabax kër gu mag gu tollu ci téeméeri million ci suñu kopparu réew eh, jox ko àddiya sëriñ Baara Mbacke moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ku ko xam xam ko ci baax xam ko ci dal xam ko itam ci dajale ñi nga xamante ne ñoo di jullit moom sëriñ Serigne di Mokhtar Mbacké moom moo wet woote bennoo ci ñi nga xamante ne ñoo di jullit yi rawatina jullit yu nekkee ci réewum Sénégal. li nga xam ne. ñi nga xam ne. moo xew ci jamono bi. moo xew ci jamono bi. ci tariixa yi. ci tariixa yi. loolu laa bëgg mu jóg fi ba set wecc loolu la bëgg mu jóg fi ba set wecc ndax lépp ndax lépp lenn la alaaji maam alaaji malik ndax moo maam alhaaji malik sëriñ tuuba ak sëriñ tuuba jenn jëmm lañu jenn jëmm lañu mu leen xajale mu ne su leen xajale ku leen xajale ku leen xajale ci gott ba rek da dem ca gott ba rek. xaj dem ca gott ba rek. ko dem ca gott ba rek. gannaaw. leeti tabax le feeti te xam le feeti njariñu màggal ku jóg di màggal. mu mel ni Serigne Amidoune dégg nga Cheikh Sidi Mokhtar mu mel ni waxtu wi ngir njëkkante ak waxtu wi. Mhm. Ah, dañuy jël kàddu gi jox ko Serigne Alaaji Fall. Mhm. Serigne Alaaji Fall nag ah, mu mel ni. Ah, mooy coordonné taalibe Cheikh Mouhamadou yi nekk fii ci Ndakaaru. Euh, doon jàmbaar doon jëwriñ joo xam ne nii koo gis muy dox wala ngay wax nga xam ni Serigne Bara rek lay liggéeyal waaye ni ko Serigne Maam Cheikh waxee ñu ngi nuyu di siyaare bu baax Serigne Moustapha di ko ñaanalaat Cheikh Sidi Mokhtar Serigne Mamoun Lo li nga ci wax doy na sëkk yàlla nañ ko yàlla fayal. amilul lislaam bor amilul yoon mi bor amilul kër sëñ Bara bor. waaye tey yàlla fay na ko. ndax guy mind géemu tëdd tey di pencum Cheikh Mouhamadou Lamine Bara tey moom rek tëdd fa. Euh, nekk fa mu mel ni tey njabootu sëñ baara gépp nga fa ndax moom su fa nekkee ñëpp nga fa loolu fay gu ko sëñ baara fay la waaye fay gu ko sëñ tubaa fay la sëñ alaaji di siyaare baax sëriñ basiru xaadim awa ba communication suñu président suñu xarit euh, sëriñ sidi abdou aziz comme ni nga ko waxee coordonnateur euh, sëriñ cheikh laat ba ci sëriñ basiru mbàkke jaxate ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare sëriñ cheikh baara matile yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare mboolem ak faat cheikh mouhamadou lamine yëpp sëñ alaaji nak ngeen di waajee ngir jëm mbàkke kajoor Euh, ak nan ngeen di waje ñi nga xamne ne nek dakaru te aju ci keur Cheikh moom leen bar gep ngay seen jëwri alhamdullilah rabbil alamin euh, ñi ngi santat yalla bu baakha baax di julli ci yonante bi di sante tay ñaanal Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar yalla yok ay leeram taasuñ ci barkem ñuy ñaanal itam serigne Muntaxa basirou yalla na sama borom yagal fi suñu kanam ba liggéey bi mu namm liggéeyal sëriñ tubaab bépp mu mattali ko te ñu ànd kook moom euh, ñuy siyaar mbokk yi ñu toogal yépp di jël siyaar bi di ko teg ci loxol sëñ Xaadim euh, mu jottali ñu ko jataay bi yépp jàllaleel ñu ko ba ci suñu kilifa sëñ Moustapha al Karim ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di siyaar mbokk taalibe yépp itam Euh, Mbàkke Kajoor nag li ci professeur wax sëñ Ablaye Diop wax ko ñii wax ko fi ci xam-xam amul dara luñ ci yokk lu dul xamal nit ñi ni ñi jot a déglu waxtaan wi xam nañ ni Mbàkke Kajoor taxaw na jar naa dem mat naa waajal waaj nañu nag ba pare ndax mbokk taalibe yi ñu àndal ku leen gis nii ñu taxawe ak seen taxawaay xam ni pare nañu fas nañu yéene bu àllarba jàmm ñu déparé fii ci kër Cheikh Sidi Mokhtar gii ci HLM déparé fi aw yoonu Mbàkke Kajoor di sàkku itam ci mbokku taalibe yi ak jullit yeeg mbokk yafa nar ñëw yépp ndax euh, Sëriñ Tuuba ndax Sëriñ Tuuba dafa nekk nit koo xam ni dafa njaboote àdduna mm. ñépp ndax koo xam ni buy ñaan day ñaan ngir mbinde fi yalla yépp lewul yamul ci murid khadir wala dafa ñaan pour mbinde fi yépp la ñaanal kon koku, su ko yonent bi feño ci mbacke kadior joxe ko fa ndigal lam ko jox ñu jël dekk bobu cërale ko sëriñ di fa maggal bis bi mu aduna kon kon euh, bis bobu bis bu jara teew la bis bu jara fekke la ndax ni ñu ko waxee léegi fii koo xam ni bi muy gane àdduna la ëndaale sërice kon maanaam dafa seex doog a ñëw bi mu ñëwee ëndaale seex ci ñëwam ci la sëriñ tubaa tàmbalee yi ñu ñëwoon di ut si lañ doon ut ca lañ ko am kon ñun ñi itam àdduna bépp ñu ngi leen di woo di leen xamal ni képp koo xam ni am na loo bëgg am looy ut bis baa ngi nii le 15. Mm-hmm. bii ñu jëm la. di alxames. kon képp koo xam ne am na loo bëgg am looy wut. Mm-hmm. ñoo ngi lay xaar Mbàkke Kajoor di la woo tey sàkku ci mboolem ñi fay ñëw kuy ñëw ku ne ni ma ko tàmm di waxee na la pas-pas bu wér mm-hmm. indi na nga seet li nga bëgg ba mu wér ni bëgg nga ko nga ànd ak moom ñëw Mbàkke Kajoor boo ñëwee incha allah. Euh, sëriñ bi daan la ko defal. jërëjëf sëñ am ñu bàyyee la kàddu gi rek mm. ndax euh, li du des ci waxtu yi bareetul ñu defaat euh, beneen tour boo xam ne rek ku nekk da nga mën a indi sa kàddu gu mujj. Mm-hmm. xalaat di ziare sëriñ Cheikh Aziz moom sëriñ Abdou Aziz Bara. Mm-hmm. ba ci sëriñ Abdou ba ci sëriñ Abdou Karim Mbacké Bari waaye di nuyu bu baax sëti sëriñ Bara yëpp. Mm-hmm. sëriñ Cheikh Thioro mi nga xam ne jàmbaar la joo xam ne ni. lépp luy jëmal kër sëriñ baar rek ci lay xëyti ci gont ñu ngi koy ziare bax serigne mam Cheikh mom serigne khadim Awa Ba xam nga ni mom tam AIS premier congrès bi ñi def le 3 mars inshallah ci fi ci euh diko di ci wo ñep King Fat Place inshallah le 3 mars. nga xam ni nako ko serigne khadim Xaadim Awa Ba lislaam ñore ko won noonu serigne bara mbooloom jullit yëpp ñore ko woon doonu loolu rek ci la topp muy jaamiatu islamiya li xidmati tasawuf mm-hmm. euh, sëriñ Amidou Diop ñu bàyyee la kàddu gi ba ci soxna daal di bàkki mi nga xam ne moom tam jàmbaar la ci liggéey bi ñu ngi koy jaar bu baax ak mbooleem axfaati Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yëpp bàyyiwul kenn jërëjëf euh, maam Cheikh Anta Samb jërëjëf euh, Serigne Alaaji Fall jëwriñ di ko am pasef nag koo xam ne bu ñu fi def sax dara lu jëm ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara day ñëw jàpp ci plateau bi ànd ko ba mu jeex Euh, taxawaay bu am solo la ci am xam naa ñu def beneen tour rek maam Cheikh bokk ak li ñuy tàggatoo jotaay bi ndax waxtu wi eh, cate na waaye na plateau bi en tout cas li ñu bëgg jàllale moom xëy na li ci ëpp jàll na. Mm. ndax borom xam-xam yi fi ne kenn ku ci nekk bi nga jëlee sa kàddu def nga sa intervention ci anam yu rafet. ba ñi koy teew teewlu ñëpp ñu ngi koy bége bu baax a baax eh, Serigne Sadikh Thiam ñu ngi koy ziare eh, moom nee mi nga rafet lu baax a baax eh, jataay bi soxna maam Amy Mbacke moom Serigne Chouaïb bu ñu ngi koy ziare baax a baax moom tamit mi jataay bi di ko di ziare suñu Serigne Serigne boobu moom Cheikh Abdoul ni ñu koy waxee léegi rek kon Serigne bi dañuy ñëwaat ci rek ci gis nañ léegi sax xam naa suñu alaaji ñëw na ci programme mu màggal gi ak ni nga xam noonu lay demee ren yaakaar naa ne am nañ ci ay taxawaay yu bees yoo xam ne am na ci muy Mbacke Kajoor moom ren liggéey bu rafet am na fa boo xam ne nii képp ku fa ñëw rek di ci teg sa bët dëkk la boo xam ne bu ñu wax rek ne njabootu Cheikh Mouhamadou Bara képp kuy jullit ci ci Sénégal mbaa foo mën a ci àddina am nga cër Mbàkke Kajoor rawatina nag yoonu murit dëkk bu toll noonu bu ñu koy wootee bis at mu nekk war na at mu nekk ñëpp ñëw découvrir ko donte sax da ngay ñëw visite sax war na la ci dëkk bi xam ne am nga fa parti part boo xam ne ni war nga ko faa jël si kon ñu bàyyi la kàddu gi waaye du ñàkk nag ay témoignages ci eh, jëmm ji ñu teg léegi xëy na sa waajur la jege na la lool ba nga xam ne eh, doo mën a wax ci moom waaye yaa ngi may woon léegi benn lettre boo xam ne nii eh, Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général de Tidiane moo ko ko bind bi mu ñëw di ko ziyaare si bi mu ko ko joxee bi mu ko liiree ba noppi da koo yëkkati teg ko sa loxo na tey tey jiyee taxoon te lu dañ koy wane ndax nit ñi man cee jariñu te yaakaar naa ni lu am solo la euh, bis boobu nag màggal gi incha allah muy le 15 du jeudi ñu ngi koy waajal nag ak euh, ji ci manière boo xam ne nii yaakaar naa danañ am léegi sax ci ligne bi Serigne Cheikh Thioro Mbacké euh, liñ ko jël léegi incha allah ci ligne bi saa yu noo jàpp ne rek soxna Ndeye Ndiaye ñu mën ko am ñu bàyyi la kàddu gi nga sof ci li nga xam ne nii mooy seere yi ñu wax léegi ci Serigne Touba Cheikh Serigne Mokhtar bu noppee na ñëw doxalinu màggal gi ak waajtaay yi waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñuy gën a sant ñëpp rek te xam ne liñ doon sàkku lépp sunu boroom defoon nañu ko ci nañ ko bëgge woon ni waajal bis bu tedd boobu di bisu Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor nag am ay xéwal yoo xamante ni sunu boroom ci jëmm boppam moo ko fa def ginnaaw ba ña fa jaar jaaree sunu boroom moo njëkke loolu ci suufas Mbàkke Kajoor mu nekk dëkk boo xamante ni euh, dëkku faj njàqare la képp koo xam ne mos nga faa sa tànk am aajo joo xam ni diis nga ko fa sunu borom saafara na loolu te loolu ñu bari mën nañ koo seere kon buñ koy waaj nañ koy waaje mooy ñu fas yéene sellal suñu jëmm sellal suñu jikko te lañu fa tax a jóg muy sàkku tuyaaba la ci jiitu mooy alxuraanu karim mm-hmm. ak jàng xaside sëriñ te fas yéene sell mm-hmm. ndax foofu yaakaar naa ne kenn ku jóg di dem Mbàkke Kajoor sa xel nekk ci leneen nakk sudul noonu Ya naa ni eh, dana am loola fank ba do magali kon kep ko xam da nga ngir magal bis bu tedd bobu bisu Cheikh Mamadou Lamine Bara Ba Mbacke bobu kep ko xam yaangi sak ngi sàkku eh, tuyaaba tuyaaba ñooñu boo da nga ko fekk bari na fa serigne Ahmed mu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke dafa musaba wax bu am solo sëñ Ahmed Baara dani képp koo xam ni jébbalu nga sa njëbbal fañ koy nangoo dëgg-dëgg mooy taxaw Mbàkke Kajoor li fekk defagoo ko rek am sa njëbbal kenn nangoogu ko sëñ Ahmed mu sëñ Baara moom moo wax loolu kon loolee nag lañ yéene ñëpp di ñaan tamit sunu borom tabaraka wa taala mu def ci réew mi jàmm comme ni ko sëriñ bi daan ñaane ak ñi ko jiitu loolu rek dañ mos a ñaan mu ñëpp am jàmm te Mbàkke Kajoor bokk na ci euh, dëkk yi nga xamante ni képp kuy wut jàmm boo fa tegee sa tànk boo naroon aw ay sax loolu dootoo ko defati te loolu ñu bari xam nañ ko kon ñu ci woo ñëpp bëgg ñëpp teew ci bëgg ñëpp jariñu ci sëriñ bi nag dëgg la sunu sëriñ la sunu waajur la ndax olof yi dañ ni wax ci sa waajur bokk na ci ak ndof sëñ bi ma jël sëriñ Cheikh Thioro mel ni tombe naa ak fi ngay jëlee kàddu gi maam Cheikh waaw sëriñ Cheikh Thioro mhm. salaamaaleykum sëriñ salaamaaleykum sëriñ Cheikh bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum salaam bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Mbacke. waaw sëñ Abdou ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi ziar bu baax jërëjëf Diop jërëjëf Mbacke. lii xam naa dégg mooy dégg bi neexul trop nag. waaw bisimilah ñu ngi lay dégg rek sëriñ man man nga wax ñu ngi lay dégg bu baax. waaw maa ngi ziar bu baax. jërëjëf Mbacke. Eh, di jiital ziar bi ak nuyooyu ci yéen waa Touba TV. Mhm. yéen ñi nga xam ni yéen la ñu baaxee tey ñu mën a waxtaanee. Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak suñu jàmbaar ji Cheikh Sidy Makhtar di nuyu bu baax euh, sëriñ Khadim ak sëriñ Maam Cheikh ak professeur Ibrahima ak euh, ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi fi te ñëpp di waxtaanee sëriñ comme euh, maa ngi yëruma tere maa ngi Mbàkke Kajoor nii moo tax awma chance su gis ñi nekk foofu yëpp waaye ñu ngi teewlu jotaay bi di ko ànd ak yéen sant yàlla nag bu baax ci waxtaan yu rafet yi ak témoignage yi nga xam ni ñëpp def nañ ko jëmmi sëriñ bi eh, ñun nag yàlla defaloon ñu tawféex tawféex joo xam ni eh, yàlla dimbale na ñu nekkoon ci wetam nekk ci wetam eh, am lu ñu ràññat la ci moom am lu ñu xam ci moom am lu ñu gis ci moom muy nitu yàlla boo xam ni nitu yàlla bu ma sëkk ku jeex ku jeex ci yàlla koo xam ni koo ko gis rek di nga xam ni gis nga nitu yàlla nit ku dëddu àddina ak li ci biiram nit ku ragal yàlla jeex tàkk ci boromam juboo ak moom nekkoon murid saadix euh, ku bari yërmande ku bari kersa euh, nit ku dal jëmm ju yaru jëmm ju tey jëmm joo xam ne ku ko gis dana la jàngal euh, ci Cheikh Sidy Mokhtar nga xam ni lu mu am delloo na ko yàlla delloo ko yàlla mooy dimbam la jëkk jëkk jox yàlla jox ko ak dundam li ko suñ borom wërsëg lépp mu jox ko ay magam yi ko jiitu woon bi mu nekkee cheikh Mouhamadul Amin lépp lu ko ñëwal mu moomale ko cheikh Mouhamadul bi mu nekkee cheikhul xadim tam lépp lu ko ñëw delloo lu ko ñëwal delloo na ko cheikhul xadim euh, muy jëm ñoo xam ni wax dëgg yàlla man jamono ji wax ci moom dina ma jële lool euh, waaye ñu sant ci yàlla rek sant ci yàlla xam ni moom yàlla dimbali na ko defal na ko loo xam ni li mu daan wax ci bis bi muy màggalu Mbàkke Kajoor bi suñ daan def commune gi dana dama cheikh nag ma waxal nit may woote ak cant cant gi tax ma koy woote mooy yàlla dafa maa bind boole ma ci sëñ Tuubaa waaye ànd dama cheikh Mouhamadul Amin Bara ba tey ma mën a lëggee sëriñ bi loo xam ni ñëpp teg nañ seen bët loolu nag laa mënta fay ci ak cant sama diggante ak sama borom moo tax ma bëgg ñëpp sant la ma yàlla ni ma yàlla def ba ma mën a lëggee sëriñ bi te jàllale bi cheikh Mouhamadul Amin Bara loolu mu bëggoon nag muy liggéeyal l'islam yàlla dimbali na ko liggéeyal yonent bi abdi isalam salaam liggéeyal cheikhul xatib liggéeyal yoon wi yàlla dimbali na ko ba lépp lu mu waroon def ci lu baax def na ko lépp lu mu waroon a jëf ci lu baax jëf na ko lépp lu mu waroon a wax ci lu baax wax na ko lépp lu waroon a jokkale ci lu baax jokkale na ko kon nag dañuy sant yàlla ci moom bu baax a baax nga xam ni liggéey yi nga xam ne liggéey na ko ni ko ni ko sëñ professeur Ibrahima waxee li gën a rëy mooy benn bi benn lislaam te ñëpp nangul ko mhm. ñëpp bëgg ko ñëpp topp ko te loolu du koo defee ci jikkoom la ñu tàggee woon Omar ibn Abdul Aziz ni ko moom nga àddina bi yëpp moom nga xol bi yëpp waaye ci sa maadute ci sa yaatu ci sa dëddu àddina ci sa njub ci nga moom ñëpp Cheikh Sidil Maxtaar itam ci ak jikkoom bu rafet makaarimul axlaaq ci nga xam ni moom la ko yàlla bindee mu doon Cheikhul Khadim loolu la loolu la moom woon at bi yëpp il fa àddina bi yëpp mën joo xam ki mu doonoon muy Cheikhul Khadim damay faral di wax ne Sëñ Tuubaa kenn mën koo doon mhm. lu ñu mën a doon ci moom képp koo xam ne nag doon nga ko la la la la lañ a doon ci a doon ci Sëñ Tuubaa lépp Cheikh Sidi Moxtaar nekkoon na ko mhm. boo ko xooloon gis ko ci jëmmam kon nag ñu sant yàlla rek sant àddina bi yëpp sant leen yéen waa Touba mhm. TV seen taxawaay bu rafet ci liggéey bi di sëñ bi dëddoo àddina ba ci bisaayub tey bii ñu koy rafetlu bu baax a baax di sant rek yàlla yóbbu ñu ci bis bi. amiin Mbacke ñu tàmm ci bisimilah rahmaani rahiim àggale ci alhamdulilah rabbil alamin amiin amiin ñu ci woo àddina yëpp xam ne Cheikh Sidi Makhtar Cheikh Sidi Makhtar bu àddina bi yëpp la. Mm-hmm. ñun ñi daan toog ci wetam waxuma la jullit yi waaye am na suñu mbokki catholique yi sax cofeel ñu am ci moom ak ni ñu daan ñëwee ci moom di sàkku ci moom ñaan. waxatuma nag jullit yi kon nag eh, màggal gi yàlla dogal muy ñett fukki guddeen ñu ci woo àddina bi yëpp ñu ñëw ànd ko ak ñun eh, ñaanal ñu ko ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine te ñu jàngat ay jikkoom yi nga xam ni moom la moom moom moo nekkoon ci moom. muy jikko yoo xam ne da ko daan da doon jàngale ci comportement. Mhm. doon ko jàngale ci ay waxam doon ko ci ay jëfam ndax daanañ daanañ daanañ dégg lu bëri ci moom muy wax àddina soo ci nekkee. te bëgg a àgg fi nga jëm da ngay teey da dal da ngay wér mu ne ñaari wér la wér ci sa yaram ndax ku wérul mënul jaamu yàlla wér ci sa jikko nekk nit ku dëggu di muñ tey jëlale mais ku ko def di nga àgg fi nga jëm muy lépp lu waay di wut ci àddina itam ñu ko wut ci ab yar ak i teggin lu waay di ci ab yar ak i teggin loolu suñu borom dina la ko jox mhm. te nit muy wut ba am ko su ko bañee ñàkk da koy téye di nga xam ne noonu ko doon wute mhm. loolu da am njàngaleem yoo xam ne incha allahu fas moom lañ fas yéene jàngat ci bis bii ñëw ci jëmmam ju sell bi ndax dañoo bëgg màggal gi yëpp màggalu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la ak gëneem àddina la ñuy fàttaliku waaye nag moom dinañu may moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñu fab ko jàngal lépp Cheikh Sidi Makhtar maanaam maanaam ñaanale ko ranal ko ci hommage insha allah kon ñu bëgg rek ñëpp ñëw ànd si ko ak ñun bi barakati rasulillah jërëjëf sëriñ Cheikh Thioro Mbacke moom sëriñ allo Basirou Khoudia Dieng Mbacke jërëjëf mm-hmm. yor kàddu kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jërëjëf di liggéey liggéey bu am solo. Mhm. yàlla yàlla guddal sa fan suñu xarit ñu bàyyi la nga àggale. naa ñu fàttali ko sax ni. Mhm. Euh, képp koo xam ne ni yaa ngi topp télé bi boo ko mënta am ci sa kër yi mën ngaa dugg ci Sanga TV benn application la boo xam ne ni boo demee di nga mën a télécharger Touba TV mën di ko seetaan en direct sax ci internet bi. Euh, ñu wax ko téléspectateur yëpp Sanga TV bu nga ñëwee ci application ci Play Store di nga ko mën a télécharger mun di am programme Touba TV. moo xam émission direct yi la moo xam euh, enregistré yi moo xam nu mu ci mën a doon rek incha allah di nga mën a topp foofu programme bi ñu di ko sant ko gërëm baax Serigne Cheikh Thioro Mbacke comme ni ñu ko daan defee at mu nekk rek ci euh, bu màggal gi teewee ni mu daan jëlee kàddu bu sëñ bi ñu la kàddu gi fi nga tolloon yaakaar naa ne moom la doon dëgg rek ah, jërëjëf ñu ngi sant Serigne Cheikh Thioro bu baax mm-hmm. euh, mu nekk koo xamante ni ku yàgg ak sëriñ bi la sëriñ bi yaral ko boppam ci ndigalul waajuram mu taxawaay taxawaay bu rafet ci sëriñ bi ñu ngi koy sant te di ko ñaanal bu baax te it taxawaay boobee mu taxaw mu taxaw woon ci sëriñ bi keroog bi nga xamante ne sëriñ bi jóge na fi dafa ñëw ci sëriñ Moustapha ne ko tey yaa fi Cheikh yaa fi eh, Cheikh Sidil Mokhtar tey yaa fi jëmmi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké lépp loo nekk nekk naa ci te it sëriñ bi yàgg na leen a boole lool kon dañ koy ñaanal bu baax di ko sant bu baax euh, di ñaanalaal tamit di santaale tamit Serigne Cheikh Bara Lahad mi nga xamante ne si euh, moom la sëriñ bi daan doxale digganteem ak kilifay diine yi mu doxin ci doxin wu rafet ak ci li nga xamante ni si mooy baytilaayil xaraam gi mu daan taxaw sëriñ bi nag mm, moom bu ñuy wax ci moom du yomb waaye nag dañ ciy junj tuuti junj gi nag mooy la Cheikh Mahamadou Moustapha defoon sëriñ Touba def ko loolo bu ngeen xoolee ci ay mbiram loole day répété waat ci Cheikh Sidi Mokhtar kenn ku nekk xam na ni sëriñ Touba ak Alxaaji Malik kenn ku ne xam nañ bokk gi ñu bokk te bokk googee ba mu ñëwee da ko gën a dëggalaat ba tax na alxa Serigne Touba ak ak Seydi Alxaaji Malik ñu daan joxalante ay leetar ay mbind yu rafet ay kàddu yu rafet di ko joxalante loolee nag dafa mel ni dafa répétikuwaat ci a Cheikh Sidil Mokhtar ci kii nga xamante ni moo fi nekk jataayu Seydi Alhaj Malick muy Seydi Aboubakar Sy Al Mansour ndax bi nga xamante ni ñëw na ci màggal gi indi ab siyaaraam dafa woy sëñ bi ay woy ay tagg yoo xamante ni ay jikkoom yoo xamante ni si moom la def ci màggal gi indiaale ko boole ko addiyee ju bari indil ko sëriñ bi kon Euh, la Serigne Touba daan def ak Alxaaji Malick moo répété ko waat nii keroog man lettre bi man maa ko jàng bi ma ko jàng ba noppi mu jox ma ko ma téye ko moo nekk nii kon moom am nekkul asar bis bi xëy na moo taxoon muy def lii waaye nag loolu da ko donn ci ay maamam ñoom ñaar ñu donnante ko ba mu ñëwaat ci moom mi kon lii doy na firnde sëkk bokk gi am na te lenn lu ko yàq ci àddina du am ndax sëriñ bi ñaan na ko te ñoom nangul nañ ko ko kon loolu ñu koy séeral mbindeef yépp di sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaanal ki nga xamante ni tey jii moo fi jëmmi Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke di sëriñ Moustapha mu Cheikh Sidil Mokhtar Mbakke nga xamante ni moo toog ñaari jataay jataayu Serigne Baara ak jataayu Cheikh Sidi Mokhtar ñu ñaanal ko sunu boroom yan bi woyof toy ci moom di ñaanal mboolem ñu fi teew ñépp li nga xamante ni waxtaan nañ ko fi ngir yàlla ak jëmmi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara te kenn ku kenn ci ñoom ñi ñii di waxtaan amul kenn ku ci waxee bakkanam kenn ku nekk xam-xam bu wér nga wax ndax wax dafa am solo lool waaye la ci ëpp solo mooy waxe xam-xam bañ waxe sa bakkan te ñi fi jaar ñëpp kenn ku nekk maanaam mën naa wax ci Cheikh Mouhamadou lemin ndax Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Lamine léppam xam-xam la kon ñii ñu tànn ñii ngir ñu waxtaan ci Cheikh Mouhamadou Lamine rëccuwuñ loo xamante ni si maanaam euh, wowoon nañ leen ñu waxtaan Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké waaw kon sant nañ bu baax sëriñ am Diop yow ñu ngi lay sant bu baax di sant sëñ Cheikh Anta bu baax may ñaan sunu borom jappale len taxawu len ba li ngeen yene lepp ngeen def ko ci barakati khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam may ñaan ki nga xamni moy borom kër gi mm-hmm. euh, di serigne mbakki yu fay ci liggey bu rafet bi nga xamantene ci si def nako mm-hmm. ngir yalla ak jëm Cheikh Ahmadou bam khadim rasul mm-hmm. te it yemalew ko ci kër serigne Touba mbollem kër diine yépp manam na serigne bi daan doxé non lay doxé kon ñu ngi koy sante diko gërëm ñaanal والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرجف آه، سرين بي خادم آه، نيت آه، نيجلي سنت نيجي نسي داب مام شيخان تبيني واجل بلاتو شيخان تبيني بيما كوي دب مواهني مانجيم باكي كجوا مسوفك كوني نيكو مفا دمانيو عندكو جيت دخلوا هي دفل سج بارم ماشي ورجيت ولين ده سنت نخامكو بركي دمي دف أما شيخ سيد المختار مدوغو تلين بي دف أي تي أما نجوا أم سلام كي واي إف تي باخم ci mbooloo mi nga xam ne ñu ngi boot ci ginnaaw mu di leen gindi soo ñëwee màggalu Mbàkke Kajoor këram ginnaaw tàkkusaan mbooloo mi dañ fay daje muy wax ak ñoom ci sëñ Tuubaa di leen delloowaat te loolu waajuram nekk fi noonu la nekkee woon te it yaakaar naa ku ko xam ci loolu nga ko xamee yaakaar naa ne ñi ko gis sax bariwul wala ñi mu jaxasool bariwul te it liggéey bi nga xam ne moom la moom la waajuram wa bëgg ca la nekk ndax bi ma mujjee ak gisante moom ak sëriñ bi jàpp naa ne bu ma mat semaine ci la yem ci la fi sëriñ bàyyi ko ci bàyyi keroog ma ngi ko ma ngi ko yónni ndidi bu ndidi buggu keroog da ko ne bàyyi fi sa oto te yóbbu sama oto xam ne eh, loolu keroog noo ànd man ak moom ak Cheikh Ndiaye ak sa xarit Serigne Mamor Mbacke ñu ngi koy ziare baax a baax moom Serigne Abibou eh, moom Cheikh Amadou Mbe daf may wax lu bari bu ngeen wéetee sax nga koy ñu ngi lay joxaale a baax sa wàccuwaay dafa mel ni tale bi sax sëñ maam Cheikh ni ma ko waxee léegi sëñ Abibou noonu la demee gis nga léegi kàddu gi bi ñu ko joxee dafa wax ne man du wax bàyyi leen ma rek ma toog waaye amul benn émission buy daw ci télé bi bu mu dul wootee di wax di ko rafetlu ngir nu muy dundee sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sëñ maam Cheikh mii ne ma ko waxee amul benn émission bu ñuy def boo xam bu ma ko wooyee su ne man su ma mënul ñëw it dinaa woo kenn ku bokk ci association bi ñëw ndax loolu ñu tax a jóg kon yaakaar naa ñi daje ci plateau bi tey eh, ñoom ñooy borom tele bi sëñ Ibrahima ma waaye laa moom ba nga dugal ko dëgg la xajul ci waxtu yi loolu noon la demee nga defu tënk rek tàggatoo waale ndax mm. ah, waxtu bi daanaka ñëw na mm. dab nañu du ko defee sëñ maam Cheikh mën a tàggatoo waale ak mm. sëriñ Ablaye Diop Bichri ñu mën a yëkkati jotaay bi xalaat di wax ci sëñ Xaadim rek eh, nit ku baax la comme ni nga ko waxee sëriñ bi euh, fexe na ba ñi ko xamoon lu jiitu Cheikh Sidil Mokhtar di doomi sëriñ Baara euh, lu di nekk sëriñ Baara waaye euh, doon xalifab sëñ Baara doon xalifab sëñ Touba bi mu fi bàyyi ko dem àjjana wax nañ ne melo wi rek la la mel moy woyof bax modeste te lool rek mo am solo ndax adina mom xumbel mo fi gis dana tass euh, li am solo nak moy nek ci li nga wara nek te gëm seigne touba seigne khadim nak euh, nit dañu wax ni du ngeen bokkul alal bokku bokku len tukki xamoko ko and nañ tukki tukki bu sori te yakar na ni waxtu nek, ak Ibrahima mi ñoy bokk top kon xam nañ ko bu baax euh, bi kon seigne Ibrahima yeen kaddu ngay tàggatoo ndax waxtu yi dab nañ kaddu yi may tàggatoo rek moy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara dafa liggéeyal lislaam loo xamante ni foo dem ci ëttu diini yi ñu ngi koy bàyyi xel dafa am benn témoignage bu may def ci professeur mbay Thiam bu université Ebat dañoo toog di waxtaan mu ni ma man def na 43 ans ci université di jàng mooy sunu doyen mu ni ma sama kilifa di Serigne Maodo moom Serigne Abdoul Aziz dafa ni ma ak mbooloo mu bari fépp foo leen diggi ndigalal Cheikh Sidil Muxtaar bu leen ma tàggu dem leen mm. lii mu wax ci Seydul Xaaji Malik li lii yooyu firndeel ma nga jëg gëjee ci Seydul Xaaji Malik ba ci ñii ndax bind dafa am solo di leen tradition ek c'est important Malik dafa yónnee Seexul Xadim ay téere boobu sëriñ bi moo ko bëggoon yabal ndaw bu mat a bàyyi xel la ndax moom fardul jaami la woon la alam la yàlla dogal ndaw la du di sàkku di bi ni ko téere sàngam la am na ñoo xam ne nañ sax ñaaru la ndax histoire version da ciy bari mais bi mu jaaree ci ci Seydil Hadji Malick jaar di ko ziyaare xoolal teggin yi jaar di ko ziyaare mu ne ko looy dox mun ko ku baax kémi yoon ni téere sàngam mu ko óoma boobu waaye am naa bu mel kaay nga dem joxal ma ko hadiya booba nag ab téere jafe na jafe boo xamante ni mu ngi mel ni rek nga jël cent milliards wala nangami milliards jox ko nit mu mu def ci ñaari abiyat yat ni ko hadiyatu mujiba ci laabu mahabbatin ya ayuhal xubaabu adaama rabbuna lana xablal wisaal wa kafana sara ladi aada wasal seydul xaj malik wax loolu daal ni ko hadiya ji mi ngi jóge ci mbokkam ñu bokk ñett ñu bokk réew mi bokk diine ji bokk der xam nga li taxoon seydul xaj malik daaw romb suñ bamba di dem toolam yëcca Gosaas wet gi mu wogoon Cheikhul Khadim moo tax Gosaas lu bari ci tool ya Seydul Xaaji Maalik ko moomoon waaye ba Sëñ Tuubaa ñëwee njaareem rombatu ko di dem ci tool ya mu toog ci waawoon ni ko hadiya ji maa koy yónnee man Seydul Xaaji Maalik jóge ci mbokkam maa waaye maa ngi ñaan sunu borom ñaan koo ko am solo képp ku bëgg fekk wala ku bëgg a remettre ko en cause suñu diggante cofeel gi bokk gi lépp gi yàlla na ko yàlla fekk ba loolu agsee ci Cheikhul Khadim مخول كو بيك لول دا نكو خاري مو تونت سان بوكو لا جزاكم خير الجزاء الوهاب وفي سفل الوداد لا ترتب فكيف له المصطفى المجاب امامنا والقتل لنا هاب نكو يالا لا يالا فاي نينجي فاي فغما لاق لاقنا لاقنا لا فوك غنا سوري نك لا لاي ديلو لوختو نيو بو ген كليفه دي رسول الله عليه الصلاه والسلام من نك راغلو مب نون سيرن بابكر سي منصور فدلي لولو لي مو بند دي دنك mooy maa ngi jëm ci sama mbokk maa ngi jëm ci sama mbokk ci lépp ndax woy juróom sama bàyyi tax la ci kilifa gu mat kilifa ci jëf ak wax waaye maa ngi fay wuutu man mu néew doole mii te soxlawoo aajo sunu boroom maa ngi fay wuutu mboolem xadara Seydul Xaji Malik waaye bis bii may dem di seeti Cheikh Siidul Muxtaar ngir muy waajal bisub Cheikhul khadim bi ma ngi koy àndanteeg mom mbokam leppam ci Tiwaawoon di Serigne babakar si Mansour mo bind li ci teunk kon limay wax ni nagi yi mën bëkkante way sàmm su duñu réeroo nag yi bëkkante way kon nañu bayyi xel suñu kilifa yi Cheikh Sidil mukhtar ndax limu gëna defal l'islam du tabax yi du ay som deedet nit ñaar la li ëpp solo ci nit mooy lu ñu dul gis waaw nit ñaar la li ëpp solo mooy lu ñu dul laal duñ ko gis mooy maana wi fexe na ba diggante këri diine amoon na ay kuréel amoon na jafe-jafe mu mab bi yëpp mu mabbal ko Cheikhul Khadim mabbal ko rasulullah yi màggal ko Seyd màbbal ko Seydul Hadji Malick mu mab bi yëpp ba ñëpp di benn mu ne bëggatuma dégg murit ak tijaan ndax tarixa yàggul waaye lislaam yàgg na macha allah kon loolu mu defal lislaam ba pare nag di mag moo xamante ni kuy jege téeméeri at ba pare du julli ca ca jumaa ja war na ñëw jàngal jàngal ñëpp nu ñu jaamu yàlla te amoon na ngànt xataa julli sunna yi dama koy wax bi ma gisee mu jàpp ci eh, tabaski loxol seen seex coro sukkootu ba mu niw na doole waaye sunna ko mu jaral ngay sukkootu di di di jàpp kon war nañu jamu ji yàlla tabaxul jumaa yi ngir ni mo fa ëpp jumaa dafa tabax jumaa yi ngir julli ci wal tusbitan fi jamaatan tuqi asalawaatu xam daban yaa hakim kon nañ bàyyi xel ni Cheikh sidou Moukhtar idol la bo xamanteni war war ñu ko jàngat naan tabax na jumaa yi dedet limu def nit ñi du ko laal mu upp lool moy fexe na ba ben le diine ji te rasulullahi lool la doon wax sunu borom subhanahu wa taala ya yaa ayuha amanu rkaaw wasjudu wa'budu rabbakum wa faalul khayra laallakum tuflihun yéen ñëpp ànd leen inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus moo tax yooyu nañ ci bàyyi xel nañ bàyyi xel ci li Cheikh Sidil Muxtaar def ñu cultiver ko parce que lu ñu bari échec la réussir fexe ba Touba di ci yaawoon fexe ba nit Njaasaan di Touba fexe ba Kër Laayeen di Touba lépp di benn lu xew mu jël alalam yóbbu ca ngir lan dëggal waxi maamam jooju fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah kon yooyu nañ ko bàyyi xel mooy jàngat bi nga xamante ni daanaka mooy débat Mbàkke Kajoor bi mooy ni mu xëtali diine ji te loolu mooy suñu jafe-jafe kenn ku nekk jël nañ la tey tey sa kaw moroom doo moroom a mag nangam nangam l'islam benn la génn kilifa la ñu am di rasulullah alayhi salatu wasalam ñi ci des yëpp ay jiwruñ la cheikh cheikh sidil muxtar ñëw di cheikhul xadim di cheikh mouhamadou lamine baara ba pare nag di seydul xaaji maag di maam buggunta di maam limaamu laay toog tuubaa lu xew mu taxaw kon loolu jàngat la yoo xamante ni tabax na jumaa yi naam waaye lu ñuy laal la liñ dul laal moo gën te li tax dugg àjjina nag mooy luñ dul laal mooy tax a liñ dul laal duñ ko gis mooy tax a dugg àjjina asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Ibrahima jërëjëf afdalul umuri awsatuha mu mel ni euh, sëñ Ibrahima li duuf ci nag yu xajandowul waxtu yu dab nañu euh, ñu jox sëriñ maam Cheikh Khadim Awa Ba lu nun junj ci xam-xam ci Cheikh Mamadou Lamine Bara ndax waxtu wi dab nañu te sëriñ Cheikh Balla sàmb mi ngi agsi léegi Euh, toogal fi alaaji mbàkk yu fay bi nga xam ni nee na euh, du fàtte Cheikh Sidil Mokhtar mukk ci kërug àddina waaye fépp foo xamee ni euh, Cheikh Sidil léggéey liggéeyloo na ko yaakaar naa ni liggéey na ko liggéey goo xam ne mbégteem sëriñ bi la ndokk nag ba sëriñ bi demee yóbbaale ngërëmam sëñ bu Jóob mi bi ñu dencee sëñ bi dama ko fekk mu am sago lool ci bunt bi ma ne ko sëñ bu dee am nga sago lool mu ne ma damaa xam ki tëdd fii tem yar ma damaa xam kii fa mu jëm du dooma gis mukk ma ñak sago ki tëdd fi ci ci guddigi biñu denc señ bi mo am sago lol mané ko ah, señ bi budé sa sago gi doyna na lol lool mu ni ma dama xam ki rek day sama mam mu yar ma ma xam fi mu jëm motax ki kuko xam doo ko jooyal <laughs> loolu la ma wax kon yalla ñu yalla fayal Cheikh Sidi Mokhtar kon Serigne mam Cheikh bismillah euh, jere jërëjëf ñu ngi santat yalla bax rek tay am ci plateau bi plateau bi wax deug yalla riche na trop lepp liñ ci bëggoon ngir waxtaanee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara wax dëgg yàlla gis nañ ko ñi fi toog ñëpp macha allah taala ku ci yëkkati wax doo bëgg mu bàyyi ndax li muy wax xam na ko teg na ko fi mu ko war a teg waaye li ci gën a am solo mooy ànd ak yéene sant bu baax euh, sunu mbokk yu toog professeur Faye ak sëñ Abdoulaye Diop sant bu baax ci wu am solo bi nga xam ne yëkkati nañ ko jëmal ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëñ lay maay moom mooy man. sëñ Alaaji Fall tam ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax euh, li ñu àggale rek ci kàddu ci ci li ñu doon junj sëñ Baara ci xam-xam mm. mooy xasida gii nga xam tiim nañ ko mu nawwiru bunyaan mu tëddee ko mu nawwiru bunyaan mu àllimal juhal wal umyaan dèjà titre bi rek wane na ne kii wax xam na li muy wax kii wax borom la waaye kii wax am lu ko tax yëkkati ndax dañuy wax wax da war naa am tem war naa am xalaat bu rafet waaye war naa am lu objectif lu bite sëñ baara nag def na ñett yëpp ci biir xasida gi lim jublu wax na ko ci biir xasida gi ci njëlbeen gi ne li ma jublu mooy tawassul tawassul laa jubloo def kon ñaan la te ñaan dafa màgg ci diine ndax yontu salaam ne al du'a ngi jéglu yontu salaam nee ñaan mooy jaamu yàlla kon ndeke nit ki bu dee ñaan yàlla rek mboolem li yàlla suma subhanahu da bëgg ci moom def na ko moo tax gaa yi yàlla yi mutasawwifu na yi jël seen lépp muy ñaan ndax bo xasse bay ñaan and nga ak wétal yalla ànd nga né yow da nga ñak yow faqir nga yalla moy al ghani boy ñaan yaangi toroxlu ne yalla mo mag boy ñaan yaangi tawakkul xam ne mënu dara boy ñaan yaangi wone amo katan yalla mo am katan kon motax ñaan dafa boole mbolé xeeti ibaadaat moo tax mu tasaw yi fi bëgg di ko def lool motax tax ñu raw ñu raw ñëpp ñom ñu raw ñëpp ñi nga xam ne dañoo sàgg ne ñaan nga xam ne dañoo da wuti lenen gis nga ne amna lu manki ñom motax tax suñ baara dangay gis ne xasidaam yi ci ëpp ndaaro yi euh, waajuram muy Sëriñ Tuubaa mooy euh, day ñaan day def tawassul waaye tawassulaat yooyu ci biir da ciy jàngalaale ndax Sëriñ Tuubaa boo gisee xasidaam yi nga xam ne ñaa ngi koy jàng ñaan la waaye da ciy jàngale xool mat la foofu sëni mat la foofu sëni Sëriñ da ciy ñaan waaye ci biir day jàngale nit bu waree nekk société nan la war a nekke nit bu waree tabax ab dëkk nan la ko war a tabaxee yu yëpp da nga gis Sëriñ Tuubaa da ko caa ñaan waaye teewut ay njàngale yu nekk ci biir moo tax xasida gi Sëriñ Baara dañuy def tawassul tawassul la wax gis nga mi ngi commencé fi di wax amma ba'd fa yaqulu al-faqiru ila allah raji al alganiyu bihi al amin al-multaji ilayhi at-talib minhu an la yahif an al-haqq wa la yamil gis nga loolu rek dèjà mu ne ki wax moy ki ñak moom seigne bar neena moy ki wax moy ki ñak manam lool moy tawaadon ndax buñu jëmé ci yàlla ñom xolatuñ lu am xolatuñ ki ndax yàlla mo leen jox li nek motax sa tax dañuy toroxul wàcc seen bop ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala te ab jam lool war def mu ne yaakaar yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam moo riche te moo mën lépp kii wax nag mooy ahmadul amin di wéeru ci yàlla suñu borom subhanahu wa di sàkku ci moom lan la sàkku ci yàlla sàkkut alal sàkkut kër sàkkut bien li mu sàkku ci yàlla daal mooy mu bañ jeng jéng dëkk jéng walif dëkk moom daal nay teg léppam ci dëkk moo tax xasida gi ni mu wax wax na ko ci biir daa di wax ne li ma ci jublu mooy damay def tawassul mutawassilan ila rabbihil karim bi asmaila bi asmail husna wa lillahi al asmaul husna fad'u biha loolu yàlla wax kon farata la yàlla moo ne am naa ay tur yu sell yoo xam ñaan leen bi suñ baara kon ñëw ne damay tawassul bi asmaihil husna ci tur yàlla suma subhanahu wa taala màgg yi li kay yakuna min al muhsinina ngir moom ahmadou lamin mii bokk ci muhsinina yi alladina lahumu ziyada wal husna ñi nga xam ne yàlla nee na alladina ahsanu husna wa ziyada jaamian maaha nee na mu booleeg asmaillahi husna yooyu lan la koy boole ci xasida gi bi asmaai suwaril qur'ani karim mooy saari alqur'an karim yi mu ne lan la ci nadman ka durri nadim waaye rafet woo xam ne comme wurus wuñ nose lay doon nee lan la ci rek bo bi asmaai nabihi dil jahil amim waye bu mu joge ci turu yàlla yooyu ak suru alquran yooyu dana ñëw tawassul ci turu yentu sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamne moy borom jah bu matela ba alladhi sawwarahu allah bi xuluqin adim wallahu yarzuq man yasha bi ghairi hisab ñu teunk tuuti rek ci bir khassida gi ci am mom lañ dar wax na ci bir ne ashkur rabbi ala ma qad la khadim xadimu cheikhuna fan khada ndax tamit xewal gën lu mag ci xewal ñu bari dañu jàpp ne xewal Moy alalu ñew wala ay bien yu am wala auto profit bu am nga xamne ne bala nga ca bala ba ngay japp xewul bay bay dogu sant yalla wala bok neena def nangam mais seigne bar lim japp xewul moy mooy Serigne Touba mi ko yàlla suma subhaana wommatal tek ko suñu loxo mu ginnu ñu seigne bar neena loolu moy xewul ci loolu la wax ne ma ngi ci sant yalla subhanahu wa taala mi nga xam ne wommatal ci yu andi loko mu ne fa ni'matu rahman la tu'addu walam takun tuhsa wala wala ndax xewul gi di Serigne Touba xewal la go xam yàlla suma subhaana moo ñu ko xéewal mënu lim mënu def ndax sëñ Tuubaa moo ne yar ci demoon defal lem boo dee wëj biir xasida gi sëñ mi ngi continué di wax ne yow suñu borom subhaana wa taala mi ngi continué ci xasida ko wax ne ko siwaaka lam yamut loolu tawxiid day dugal siwaaka lam yamut wala sa antal mumitu rabbana wal muxyi loolu ku dégg nit yàlla ku dégg mu nga xam ku wéetal yàlla ñu ko dàq wéetal siwaaka lam yamut wala sa yuxyi ku dul yow yàlla du faatu yow rek yaa dut faatu te ku yow du dundalaate antal mumitu yow yaay ki faate wa rabbana wal muxti yaay ki dundalaate mu ñëw ba ci delluwaat ci biir xasida gi ñëwaat naan ko daa daa fi a na ko xayruka lam yanfa walam yakun yadur fa najjinaa yaa rabbana min ko dur ku dut yow suñu borom subhanahu wa taala doo jariñ te doo loraate kon yàlla yàlla ñu may yàlla ñu lor yàlla mu ne salli ala xaysin siratillahi man maa lahu fil xalqi min baahi yàlla yàlla nga julli sëlmal ci ki nga xam ne mooy la ka xeet li kaakot bi mooy kii tab bi mooy ki nga xam mooy yoonu yàlla kooku ki nga xam ne amut ci mbindeef yi kum dendal wa urwatin inda llaahi inda al ilaahi wufqa di niamatin jalisu la yasqa ki nga xam ne mooy gi nga xam du dog mukk képp ku ci jàpp ak la yàlla subhanahu wa taala nee na mooy sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy borom xéewal ga te képp koy fréquenté doo texee di wa huwa siraatul mustaqimul haadi اهل الرشاد رحمه العباد كي كو ام خم خم كو يالا خمال موي واخ لو ملني مو تيوكو ген خاسيدو غو ييمي غو خامني بشراكي يا ارض توبا يوم نيت على كل البلاد بهذا الشيخ كل علا خاسيدو غو ييمي لا نخ يالا سمو سبحانه وتعالى مو واخ القران الكريم يا ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم يوم جنات تجد من تحتها النار با اك جي الفوز العظيم بشراكم غو خام سن سبحانه وتعالى مو القران الكريم الله يوم الخيام ne yeen xolal ne wax sallallahu bis da nga gis ña gëmoon yalla ñu goor ak ñu leer yi iman yi di len leral seeni i tank ak seen xar kanam ak seen gannaaw ak seen càmmoñ mu ne boba nak yalla lam leen wax al yawma il tay begulen aljana jaangi ni lepp nga a begulen nii bara gis ne suufu Tuubaa ah tay kat wax deug yalla sëñ Tuubaa jugi na fi jëmuju sel ju tedd ju mag fan lañ ko wara denc suuf lañ ko wara denc bara waxatut manam njabot gi fi nek waxatul manam lim fi bayyi waxatul kenn way suufu suba la jakarol diko diko kagn di tag suufu suba bushraki woo sa mbekte ya arda tuba yow ba nil ala yow bis bi nga xamé am nga kan nga am dana ko am nga sax ci kaw suuf am nga ci kaw yi suuf lo xamné amuñu ko moy kan te ya laq si Ahmad bamba khadim rasul di konde hadal qadim alladhi najjal muridin min kayd min ridu fa hada suula wal amala sering bi nga xam mo muccel murid yi ci marit ba murid yi làq lañ bëgg ci yàlla suma subhanahu wa taala ba ma ba ma wax naa laa yabtaxi min duniyaahu xaatibatan si waa rida rabbihi wal ilmi wal wal amala ni mu ko waxee daa nekk ndax sëriñ bii kat sàkkut ci boromam lu dul ngërëmal yàlla ak xam-xam bi ñu doon wax gis nga wal ilmi ak ak ak ak wala amala ak jëf loolu rek la sàkk moom la suñu Tuubaa doon wax xaalu leer kan li abwaab salaati taxus jawaayisa tuxni kullu waxin bi faqul xasbi rabbi waqtafaytu bi wa xayru wa lastu raadiya xayra ilmi wa kon suñu am euh, fii nañ yemale kàddu yi di ñaan yalla suma subhanahu wa taala yalla ñu yalla jappalé magul Mbàkke jor gi ñu dugg ci bismillah gën ci alhamdullahi rabbil alamin di santat bu baax sunu khalifa serigne Moussa Mbàkke mom serigne Sidal mukhtar Mbàkke yalla fi yàgg te wér waxoon naa ko sànq Cheikh mom Layin Baara yalla da leena ñongal ñoŋal suñu baara ñongal leen ndax xas deug bu ci duggon da nga gis sëñ baara lim ñaan ci yalla ñongalal ko ak njabootam te non la ko yalla suma subhanahu wa ta'ala ñongalé li nak lu ngeen gis lu ne histoire amna day amati yantou sallallahu alaihi wasallam bi mu fi jógee ciow amoon na yëngutu amoon na kon sëñ baara bu fekkee dafa dond sëñ tubaa sëñ tubaa bi mu bi mu fi jógee tamit coow amoon na mais lii nekkul loo xam ne lu ñu nit di mën a jàpp dara wala jàpp la ci am solo mooy njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara gépp fukki kër ak juróom benn yëpp ni juróom-ñaar yi fukki kër ak juróom benn yëpp nañu ko wax dafa faaw ñu ko répété ñoom ñëpp dañoo tënku ànd topp ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam moo fi sëriñ baara te damay wax ne fukki kër juróom benn yooyu kenn mënu wax ne dañoo dañoo juumanoo bu doon kenn sax nga daa juum waaye fukki kër ak juróom benn kër gune ay kàngama fa nekk kër gune ay nit yàlla kër gune ay borom xam-xam ñoo fa nekk ñu sell ñoo xam ne lu dul yàlla bëgguñu ko lu dul yent bëgg lu suñu tubaab bëgguñu ñun ñëpp ñu àndandoo tënkanoo topp ci ginnaaw Cheikh Amadou Moussa nañu ñëpp jàppale ci loolu képp ku bokk suñu tubaab daal wala gërib taali wala julli jàppale ñu nga xam ne ñun waa sëñ Baara ci loolu lañ nekk mhm. yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah euh, sëriñ maam Cheikh Khadim Awa Ba mu mel nii li duuf ci nag bi xajandoowul ci cin li ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Balla Samba ngi war a dem Mbar suba incha allah ci màggalug Serigne Balla Coro mi nga xam ni moom Coro Maroso moom Serigne Morant Sali mi nga xam ne tey Serigne Mam Moor mooy xalifa ba Serigne Cheikh Balla Samb dem euh, Mbar suba alaaji mbakk yu fay ni télé bépp nañ ànd ak Serigne Cheikh Balla sàmba gunge ko Mbar bisimilah dama ci tof rek juróomi minute xay na dina baax ma toftal ci fi mu nekkoon ci xam-xamu sëñ Baara ba tey xasida gu neex googi mu def maamam def def ko 1927 bi mu timé xabru mamam Serigne Touba waaw ci bir daf ci assurer mouride yëpp motax kon dañ ci jànge ni ku lon serigne Touba la mom Cheikh Mouhamadou lami ndax ci bir dafa wax ni fa al khadim allazi najal muridina min kaydil maridi fa hazu sola wal amala joxoñ suuf ni ko fa mislu day fiki lam yasfar bihi baladun ma in yura baladun yabri bihi badala kon gis nga ndeke ki am serigne Touba dootu ko wutal mukk remplaçant suuf sii nga xam ne daal fi nga tëdd tey jii yow sëñ Touba nee amul benn suuf boo xam ni rëy na ba mënoo pookare wu ci kawam te kenn du la am di wutiwaat ku la wëtt ku la remplacer yow Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ni fa wal imaamu lazi maa xaaba saailuhu fa saailu cheikh yaxwi fawqa ma saala mu ni dëgg-dëgg kii mooy njiit li nga xam ni yàllaa ko jiital képp ku fëgg buntu sëñ Touba ngir wuti sëriñ Baara nee na doo sooy la nga bëgg di nga jot lu féete kaw sa mëbët mébét yow mi doon dem di laaj sëñ Tuubaa sama baay kon loola dafa dalalaat xelu murid 1927 ci xasida gu rafet googu mu def waaye yàlla defaloon ko tam lu mu mës a ñaan yàlla réalisé na ko bu nu delloo ci saadatul abraar xasidaam la ba tey dafa wax ci biir ñaan goo xam ne yàlla da koo defal te ñu ngi ko gën a xamee ci Seex Sidil Muxtaar dafa wax ni wajal iyaali ka misli nam li fil kusri wal saafi bi xaqi nam li dafa ñaan ci bar barkeb suuratu namli ma nga xam ni nguuru Suleymaan gaag la ca ne lépp ci diggante politiciens yi yàlla misaal na ko ca mu ñaan ci saar woowu yàlla nag ma may njaboot goo xam ni man sëñ baara dañuy ràbbaloo nekk benn dañoo toll ci contexte dañuy ràbbaloo nekk benn mel ni xorondom ni ñu ànde nekk benn yenn saa yi nga ñëw ci paxu xorondom gis fa sax wu rëy xam ngeen ni benn melentaan yóbbu ko fa kon seen yitteeg seen àndandoo nekk benn moo tax ñu def loolu mu ne kon na nga may njaboot goo xam ne ëllëg ñoom ñëpp ko yëkkatikandoo ñom ñëpp ay tegandoo dañ ñek ben ñaanam gogu sëñ baara da ko ñaanon waye ñu tok tam ak sëñ Abib mu baax ki kii ma mën ci cee jànge baara ñaan job ndax mo jur sëñ mustafa job mi tay di bayam Cheikh Sidil Muxtaar jur soxna May mbake mi we juram bu jigen sëñ mustafa denc ko am ko ci mom mi yalla atte ñaan job magee na sëñ baara ci zahir ñaar fukki at ak ñett ñu bari xamuñu loolu ca mag ña la woon jamonoy sëñ Touba la. sëñ Touba ko defar la na ko ci sëñ baara ndax dafa liggéeyal Cheikh Sëriñ Touba ci mën a defar mbaar ci defar néeg ci tabe ci wilaaya ci xam-xam bu rëy ba ba ñu bëri xamuñu ni sëriñ Ibrahima Diop al-Masari kàngam bu rëy boobu nga xam tey boo ko présenté ci monde arab ñu ni ku mel ni moom ci mën a woy amul xanaa xamoo ni sëñ ñaan Diop maamu kii. moo tax kooka dem jàngale ji ndax sëñ ñaan Diop bàyyi sëñ Ibrahima Diop Masar sëriñ Mor sa Diop moo ko jàngale ca war ak Diop ba mu ko jàngalee yàlla àtte ñuy jàng xam-xam benn bis ñu ne ci daara ji ci tool yi di bay mu ñëw damm euh, goppuk sëñ Ibrahima Diop Masar moo ko damm moom sëñ ñaan maamam booba ñoom ñaar ay ndongo lañ di jàng ci daara seen wéccu mu damm ko sëñ Ibrahima Diop Masar ni ko lu tax ngay damm sama gopp bi mu ne ko dama koy damm te xam naa la tax ma damm ko ñu xaw caa jàppante dem ci sëñ Mor Afsa mii wéyjuru sëñ Ibrahima Diop Masar mu ne wóol leen ma sëñ ñaan Diop ndax ku maandu la mosuma koo xam ci tooñ mu ñëw mu ne ko yaa damm gopp sama doom ji Ibrahima Diop Masar mu ne waaw maa ko damm mu ne ko lu tax nga damm ko mu ni saa suñu toogee ci tool bi di bay yàlla damay xamal ni kàngam la ci xam-xam bay du wàllam naa ko bayal te jàngale ci tey jàngale na ci loo xam ni ci ay téere day ñeewatunu ñun dégg nga dem jàng ci téere bi ñuy wax dégg nga maqaamatul xariir yi boo jàngee diwaanam dootoo ñee maqamatul xariiri ci ñi jàng ci luxa te loolu maamam moo ko provoqué maamam ba tey moo goral sëñ baara guy mind nga xam ni kon bi mu jógee ci sëriñ Touba dikk ci sëñ Modou Moustapha liggéeyal ko ba sëñ Modou Moustapha wàcc xam ngeen ni dafa demoon tam sëñ baara abboon ko ci sëñ Touba ngir mën a liggéeyam bi mu ko ko abalee yàlla atte guy mind bi ko sëñ baara yi sos maamam la ni ko demal nga goral ma guy mind yow sëñ ñaan Diop. boo ko goree bu gaawee ba gaaw na ko gor ci benn weer bu yeexee ba yéex na ko gor ci ñetti weer maamam sëñ ñaan Jóob gor ko ci benn bis keroog bi mu ko defee ci benn bis ñëw fëgg sëñ baara ni ko sëñ ñaan Jóob àggale na gor na guy mbind sëñ baara dani xanaa li ngeen di wax xamu leen ko gor na ko tey tey ñaan Jóob ñu ne gor na ko tey mu waaxu ñëw ba xoolal ko bëtam yu tedd ya ni ko ñaan Jóob jëfal nga ma jëfu malaaka dinaa la fay fayu malaaka ni ko doxal nga jiite julli tey koo jiite julli yaram araamal na safara mu jiite julli mu ne ko ñaan jóob sëñ Touba yëkkati woon na la waaye dinaa la gën a yëkkati sëñ ñaan jóob ba mu ca jógee la kontaan jël ñetti doom yu jigéen ci këram dugal ci kër sëñ Baara soxna Fat Jóob la jël may ko sëñ Moodu Baara bi feeña sànnoo si 1910 di taawu sëñ Baara mu am ci sëñ Xaadim Mbàkke mu jëlaat soxna Awa Diop tàbbal ko ci kër sëñ Baara may ko sëñ Abdoul Aziz Baara deuxième xalifa sëñ Baara mu am ci sëriñ Abdoul Karim ma ca Mbàkke Baari teg ci sëñ Cheikh Abdoul Aziz Mbàkke mu daal di jëlaat soxna Loota Diop may ko sëñ Abdoul Ahad Baara mu daal di ñëw am ci sëñ Abdoul Aziz kon kii toog nanu xam ni maamam rek firnde la ci ni sëriñ Baara ko defal loola lii may tëje nag mooy sëñ Bas Baara ma ko nettali ma tëje ko rek jën baal ma sëriñ Basiru Màgget Lo yàlla nañu ko yàlla yokkalal ay leeram jàmbaaru sëñ Baara moo ma ko nettali ci saalam ndax damaa def doom def ma taalibe du ma tàqalikook moom wëlbëgg itam yor sama mag joo xam mooy soxna may sëñu bokk menn maam nee na ma sëñ Abdul Ahad moo ma wax ci làmmeñam sëñ Abdul Ahad tum sëñ Tuubaa ni ma Basiru ma ni ko Mbàkke mu ni xam nga lu tax ma xër ci yow ma ne ko déedéet mu ne sa baay ba daa xiroon ci man sëñ baara ah, ñi ma bokkal sëñ Tuubaa moom njëkk a defal ñeent moo ma njëkk a bindal gàllaat ci loxoom man sëñ Abdou Lahad moom ma njëkk a may dàlli bot moom ma njëkk a tudde doom moo njëkk a may mbubb gunge naa ko ci ngan ñu togg ba añ yi sotti ñuy xaar añ yi sëñ baara ni ma Abdul Ahad ma ni Mbàkke mu jugal nu dem génn dëkk bi ma ne ko lu tax ñuy dem te añ yi noppi te la ko doon defaral mun dañuy dellusiwaat siwaat ak waxtu waaye bu yàlla rusee Abdul Ahad da nga koy xam nee na ma génn topp ko ñu daw lu mat un kilomètre mu toog as diir ni ma nañ dellu ci dëkk bi ma ne ko tey de li nga ma def man jaaxal na ma mbàkkee nee na sëñ baara ni ma Abdul Ahad ca fajar ba léegi yàlla yebal na malaakal mawti mu am ku mu bëgg a jël ruwam ci ñooñu di ma liggéeyal te man baara fekk maa ci dëkk bi du jël ruwam ndax damaa rus ma bëggoon ko xajal ba mu def liggéeyu yàlla suñu delloo di nga dégg ay jooyoo ki faatu ruwam ca fajar lañ ko waroon a jël kon kooku yàlla rusoon la di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yàlla na ko yàlla fayal ñu ngi siyaare bu baax Serigne Cheikh Balla Sam bu euh, ci teewaay bi di sant mbokk yëpp Bichri yow kenn mënu laa kenn xamu kenn xamul nunu lay def li ma la wax rek murid yëpp dañ lay ndamoo ñu ngi siyaare sëñ Cheikh Balla Samb sëñ Habib Diop jërëjëf sëñ Bichri jërëjëf Serigne Ibrahima fay jërëjëf sëñ Maam Cheikh sëñ xaadim jërëjëf sañ sëñ alaaji jërëjëf mbokk yi bis baa ngi noonu la 15 la ca Mbàkke Kajoor ñu ngi ci woo ñëpp di màggalu sëriñ Baara Mbàkke sëriñ Ablaye Diop job yal na yàlla guddal soo fan xam naa ne xaw ma fu alaaj mbàkk yu fay nekk waaye ma nga naan bu ko kenn dagg nañ ma dimbali ngir yàlla ndax ndax eh, lii moom kenn bëggul ñu ko dagg ñun ñuy wax sax bëgguñu laa dagg waaye nag li ma waxoon léegi rek afdalul umuri awsatuha te loo gis waxtu la te waxtu wi dab nañu ñu ngi jéglu baax di ziyaare njabootu sëñ Baara gépp sëriñ Moussa Baam xalifa sëñ Baara xalifa Cheikh Sidi Mokhtar Serigne Cheikh Serigne Cheikh Aziz suñu xarit Serigne Bassirou Khadim moo ba communication Serigne Sidi Abdou Aziz euh, euh, mi nga xam ne mooy coordinateur bi ba ci sëñ Cheikh Baara Laat ba ci sëñ Cheikh kon euh, sëriñ jërëjëf euh, ñu ngi jox ñëpp rendez-vous Mbacke Kajoor ak Touba TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, maam Cheikh Anta Samb jërëjëf sëñ Abdoulaye Bisri ak téléspectateurs yi ñu doon suivre bala ñoo ñëw ci sëriñ Modou Ndiaye Baara moo ñu tëjal ci Baara yi moom la bi ndax mooy hymne national bi nga xam ne nii fu njabootu Cheikh Amadou Baara dajee rek faaw ñu yëkkati ko ñu joxal ma ko kàddu gi sëriñ Cheikh Balla Samb ñu ngi koy gërëm ni ngi koy faral di amale saa su nekk ci plateau spécial bu mën am ci Touba TV dafay ñëw ànd koog ñun ba mu jeex jeex ngir rafetal ak it ngir euh, fu alaaji mbàkk yu euh, nekku rek mu teewal ko fa te xam ngeen ne euh, def naa benn remarque waxal na ma boppam ni ma Cheikh Sidil Muxtaar moo alaaji mbàkk yu daf maa féete foo xam ne su may wax ci moom li may yëg day kawe ci man te it yëg gim yëg ci moom tax na nee na mu su ma waxee sax mën na maa wax lu ëpp te xam nga réew mi ni mu demee ak ku nekk a gis-gis di nga toll foo xam sax dootoo am droit sax wax waaye nag terewul yéen a jim am ci njabootu sëñ Baara am ko ci njabootu Cheikh Sidil nee na ma yàlla ma ko suñu borom may ba ma yeggale ko jataay bi dafa ma wax ne benn jataay dootuma ci teew lu dul dama defal hommage bu mag Seex Sidi Muxtaar ba àddina sépp xam ne lim bëggoon a liggéey yëpp réussir na ko kon ñu ngi koy ñaanal euh, sëñ Cheikh Balla Samb ñu ngi koy gërëm ndax suba xam ngeen ne dafa war dem fële ca euh, ca Mbar ci màggalu sëñ Balla Coro waaye tëral mu ñëw ànd ak ñun sëñ Jibril Ndaw xam ngeen ne ma ngi ca réalisation ba ñu di ko gërëm ak madame Badiane soxna Ndey Ndiaye suba ba léegi ni euh, mu ngi ci liggéey bi sëriñ Pape Cheikh Bey ñu gërëm baax a baax nag kenn koo xam ne ni keroog bi ñu def hommage sax sëriñ Xaadim ñëw na ci ci jaatal waaye nag yoonu murid yépp a ko sant ñëpp a ko ñaanal rawatina njabootu sëñ Baara rawatina njabootu Cheikh Seydil Muxtaar muy sëriñ Cheikh Ndiaye Euh, sëriñ bi wax na ne ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko fàttaliku moom itam di wax taxawaay yu am sol yi mu amoon ci wetu Cheikh Sidil Mokhtar ñuy sant baax a gërëm euh, sëriñ Galas Ndiaye Touba ca kanam nee na mi ngi lay ñaanal sëñ xaadim nee na ma fu ma teele bu ma jàpp yam ci sëñ xaadim dinaa taxaw ndax xam naa ne la muy wax njariñul doomu aadama yépp lay doon euh, sëriñ Galas Ndiaye itam suñu wëlëri ñu ngi koy gis sa fooru sëriñ Mamor ñu ngi koy jaare jàkkaarloo woon ak sëriñ Pape Cheikh Bey ak sëriñ Ñaay Fay ci kaala gu rafet gi tubaarkàlla tey moom xam naa gato yee kafe tax sax mu toog fi mu toog ba boobaak léegi ndax jóg jaabante dem di kat jëli kaasoo ko fe dellusi sëñ Ibrahima fay jek baylat laat ñu koy ndokel bax diko ziar mom tamit ci caméra bi seigne Mansour mu Cheikh Abdoul muntaha borom bakana xan ñu koy ndokel bu baax a bax di sante bu baax a baax Babacar Diop mom itam ci son ba di gërëm na kilifa ñu amon ñep ci plateau bi kilifa ak jotaay bi di sëriñ khadim mbacke moom Cheikh Sidil Muxtaar mom sax mi ngi jox daje dig daje ñëpp Mbàkke Kajoor sëriñ mam Cheikh mbacke moom sëriñ khadim awba di ko rafet lu taxawayam sëriñ Abibou Diop ndax kazalika ñu di baax a baax Serigne Ibrahima Faye professeur xam naa ne retour de Ibrahima Faye à Touba TV faaw mu am incha allahu taala ci xidma Serigne Abdoulaye Diop Bisri mbokki taalibe bi yëpp bégg nañ ci moom eh, di ko ñaanal di wax ne ab sac la Sey eh, Ibrahima ñu Masar moom mu tuddoon léegi keroog biñ ko laajee kuy sëñ Touba ak naar yi dafa wax ne laataa mu fi ñëw di ñoom la gaa yëpp gisoon waaye nee na ko bi nga ñëwee Mbàkke kenn waxatul seeni wax cheikhun bihi xat unil naa kulla makrimatin xataa bihi xabitat naa ahlu baydaa وأهل مصر ومن في الأرض كلهم akrim bihi min imamin kashifin daada euh, ñi ngi gërëm baax sëñ Alaaji Fall euh, moom ñaanal euh, moom itam tawféex ak sutura ak teranga kon sëriñ sëriñ sëriñ Modou Ndiaye Baara dañ lay bàyyee kaddu gi rek nga daal ñuy defal ñu hymne national ñu tëje ko li nga xam ne nii mooy jataay bi di gërëm mbokki taalibe yi doon assisté yëpp nag jataay bi ñëpp ñu ngi leen di gërëm sëñ Modou naa Mamoun Lo gis ngeen kaddu yi mu yëkkati xajul sax jataay bi waaye gis nañ taxawaayam tam ci wetu Cheikh Amadou Moustapha mi xalifa tey ñu la sant baax di la gërëm nag sa taxawaay ak xam-xamam bu rafet ak ni muy muy waxtaane mom itam tuwaarkàlla sëñ atoman ñu ngi lay gëreum duñ la fàtte mukk ci décor bi ñu dila gëreum euh bu baax baax baax baax euh, kon sëñ Mamoun ñu bayyi lak ak ibrahim fay neena mom na moom leppam nga kon euh, ñu nga yëkëti sëñ baara bi rek sëñ bi def ñaan ñu daldi yëkëti li nga xam ni bi laylan mal baraka alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baray modul amin barakula way am ndam baare murito baaraay Modou Lamine bilaahi Modou Lamine Mbacké jarawaay murito baaraay Modou Lamine baara ku la waay am ndam baari ku sopp Serigne baara baaraay Modou Lamine Cheikh Sidil Mokhtar am na ndam Sëriñ Bara yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar sunu jàmbaar murid Touba ray Modou Lamine bilaahi Modou Lamine Mbacké jarawaay baar murid yéen waa géej Cheikh Sidi Moukhtar am na ndam baar murito baaraay Moodu Laamin ku sopp Serigne Cheikh Mati lay baaraay Moodu Laamin màggal des na la màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi yàlla màggal nekku ko màggal danañ la màggal ma tàmbali